jàppee moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Show seen émission Taku Show dellu soit ci kàttanu yàlla ci seen télévision Walfadjri ak seen site bi lee di solution info TV ñu amaat mbégte ak bànneex nuyu leen yéen téléspectateurs yi ak internautes yi fas yéen a ak yéen ni ñu koy defee saa su nekk tey nag dinañ ko ubbee lu ay di njàmbat Omar Bun Xataab Gueye seq waxtaan ak Cheikh cam Cheikh Thiam nag nee na mooy ambassadeur de la jeunesse du Sénégal dinañu seq ak moom waxtaan dinañu wax kan moo ko ko jox titre boobu bu nu ci victime du net son bu Diop mooy ki koy amal ñu ndar képp bi la jotaay ak NEPAD musical c'est l'affaire de Souka Mbaye Daane <laughs> Omar maa ngi lay nuyu di la ziar. di la ziar baax ajaratu di la fay bu baax di nuy ñëpp di am mbégte teewaat fii ci ndimbal suñu borom ak kàttanam mm-hmm. di sant yàlla bu baax di nuyu El Hadj Ndiogou Mbengue Sarr taalibe sëñ Sidi mu sëriñ Abdoulahad Mbacke di ko nuyu bu baax a baax di ziar sëñ bi di nuyu maa jigéen madame Dieng di nuyu suñu gan Cheikh Thiam l'ambassadeur di leen wax lan mooy l'ambassadeur ak taxawaay bi mu am ak euh, daal internet beeg ni mu ci nekk woon ak ak engagement bi mu am pour Sénégal dinañ ci waxtaan bu baax a baax mu doon suñu gan di nuyu bu baax a baax njagam mi mu àndal di nuyu waare si di nuyu sëñ Sidi Taïbu Niass Cheikh Sambaka waa Géejawaay Kër Massar. Euh, di nuyu waa Derklé ñoom Yacine ah maa ji maa jéemee daf lay waa gars ah, ah, di la di la nuyu di nuyu maire yu waa ah. dama yóbbante ay nuyu dama dajeek ñoom ci tali bi. ñoom waa Derklé yi ñu ngi leen di nuyu. waaw mm-hmm. comme ñoom ñooy wàllu bu njëkk. te la war di njëkk a nuyoo dëkkandoo dëkkandoo dëkkandoo moo tax war a fonk dëkkandoo dëkkandoo waaw léegi nag tey moom ñu am tiis nag Kër Massar hmm. mooy euh, imam Mansour Diop mën nañ ko fi invité waaw nañ ko fi démb yónnee nañ ma ko ndeysaan mooy ki fi invité woon mooy ci jamonoy euh, tabaski la xamul korité extra waaw mu defoon fii émission bu am solo moom nag mooy suñu imaamu koñ hmm. waaw am na sama doom boo xam ne sax moo ko ñu ñun ñaar soxun ay wëllëre yi bari nag bi ñuy mujj a déggante mu may vocal di ma wax ci Cheikh Bara Ndiaye ci benn émission hmm. ku bëggoon émission mais jàngoro dab ko ba jàngoro ji moo ko mujjee yóbbu ñu koy jaale waa njabootam yëpp di ko jaale waa alaaji paate waa sant yàlla Kër ma Masaar mu doonoon ku baax ku am xam-xam mën a taxaw ña fa nekk ñëpp du na xam lu kenn man nag ñu amoon relation maanaam jege heure bi mënoon na ni mbooro leen ko rob heure bi mënoon na ma fa fekk waaye liggéey bi xam ngeen ñu ngi jégul ci loolu te di wax na daal imaam Mansour euh, Diop mu doon taalibe sëñ Moustapha mm. euh, Moustarchidine wala Moustarchidaati euh, xam loolu sëriñ Cheikh waaw waaw xam loolu Serigne Cheikh ñu ngi koy ñaanal daal suñu borom yeesal yërmande ci moom saraxam yàgg ci loxoy njaboot gi ñun ñëpp ñoo ñàkk daal tey alaaji Paate Kër Masaar ñëpp a ñàkk kon ñu ngi koy jaale ñëpp mm-hmm. d'accord Omar ko aljana wàcce yërmande ci ah, jàmbaar la woon dëgg yàlla man démb lañ ma ko yónnee vidéo extrait bi mu nekk ci émission bi sax ak photom moom lañ boole yónnee ma ko yal na yàlla yërëm ko ma jigéen Diop Dieng Sall maa ngi lay nuyu di la ziar yaay Maodo maa ngi lay fay ajaratu di baax a baax te lay ñaanal nag jàmm ju sax dàkk di nuyu Omar Bun Xataab Gueye nuyu Sa Ndiogou Meng ak suñu gan gi nuyu téléspectateur ak internautes yu ñuy suivre yëpp dem ba diwaanu Thiès yi benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm ajaratu ñu koy ñaanal nag suñu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbacke yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram da koy ñaanal mboolem xalif ci biir réew mi yëpp ña fàtte suñu xel day daal di dem ci ñoom ñu ñaanal leen yàlla suñu borom gaaw leen fa jëlee ci kanam tuuti nag daañu ñëw ak yéen ba tey ci élection présidentielle yi imam euh, Makhtar yi moom nag àdduna ci am na ay kàddu yum ci yi ba wax ne sax dafa am ñaari candidat yoo xamante ne ni ñii di lobby homosexuel yi ñoom ñoo leen financé ba waxaale ñii nga xamante ne ni ñoo di parlement union européenne bi dafa am ñoo xam ne dañ leen fi yónnee ñu fa yéene ñëw superviser li nga xam ne moo di émission euh, élection yi kàddu ñu ci yëkkat ci kanam tuuti ñu teg digtal leen ko ngeen suivre ko incha allah. kanam tuuti lay doon taalibe sëñ Sidi xaritu sëñ Sidi maa ngi lay nuyu Mbengue.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 ñu ngi nuyu na ba Fall kooku sunu maman la waaye di nuyu monsieur kooku sunu tonton la macha allah di am ci ñëpp mbégte kontante euh, di gërëm topp mi nga xamante ni retour bi fan yëpp dafa amoon problème écran bi ñu ne woon écran bi dafa am problème waaye bi ko topp weqee ci la normal kon topp macha allah tànkam yi kon moo ko yàqoon moo ko wéqoon mu déréglé wéqaat na ko mu normal waaw waaw gis nga daf koo football rek affaire ba très très yaag yëpp ñu ngi doon wax daal ay changé écran yëpp di nuyu Omar di am ci moom mbégte kontaate di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal mbokk moom nga xam ni euh, wuy ñu ne ñaan na ko sunu borom xare ci àjjana yu kawe ya ñu ngi koy ñaanal di wax njaboot gi yàlla ne sunu borom may xorum muñ macha allah di nuyu Serigne Cheikh Thiam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante dalal ko ci plateau bi. Euh, parce que dañ koy suivre lu bari ci li nga xam ni mooy réseaux sociaux yi waaw mu ne fa nag di def loo xamante ni bi lu am solo la sëñ bi ñu ngi lay dalal ak jàmm di nuyu bu baax ki nga xamante ni moom la ñuy wax ma jigéen jëpp mi nga xam ne dafa jël sojom bi nga xam ne sojub daawu la bëgg koo accuser ak lacrymogène yi ne lacrymogène ma ne ko yaag penda bés bu ngeen ko ci dugalee ñu yóbbu leen ci yoon parce que diffamation la mënu leen a sosal lacrymogène yi parce que yéen seen soj man moom laa leen xamee xamewu ma leen ñàkk soj mu bëgg a raatale mbir yi daan na soj bi sojol ak lacrymogène la macha allah sukran di nuyu sukaa tapalekat mi nga xam ni dellu na ca tapale ga démb ñëwut. man xam naa ko. xam na xam na. Cheikh ñu ngi lay nuyu am plaisir dalal la ambassadeur de la jeunesse sénégalaise. maa ngi lay fay soxna si di di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di leen ñaanal jàmm. Euh, di nuyu sama sëriñ muy sëriñ Abo Mbàkkeem sëriñ ab du Fatam sëriñ Fàllu di nuyu soxna su sell su nekk Touba ñu soxna Kiné Samb di sama yaay di nuyu waa Touba di nuyu sénégalais yi ñuy suivre ci seen plateau bi. ayca mi ngi noonu ñu dem euh, jëli lu ay di njàmbat daal di dugg ci waxtaan wi. Omar Kaddu Gango. waaw tey sunu gan Cheikh Thiam Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax Cheikh da nga sa kanam gi nag. non non lu nga bëri lu nga bëri tiitar. non pas du tout grand damaa ñaaw rek <laughs> damaa ñaaw rek mais non ma tiitar grand. Eh. vraiment am na mbégte ci ci ci dal gi ma dal fii juste je vous avoue dem naa ci plateau télé yu bari ci àdduna bi mais seen plateau bi c'est vraiment professionnel voilà kawe na njort ni ma ko foogee woon daal à vrai dañu defoon quoi. Mm. <laughs> non bi xur dab moom boobu moom ànd naa ci. Mm. <laughs> jaajëf. mais di la di la nuyu bu baax Cheikh. Mm-hmm. yow dañ la miin ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. waaw Sénégal bari na lu fiy xew daan nga tollu fee di ci wax. bitim réew mais bi nga ñibbiseeg léegi da nga na tekk lan ma ko waral. waaw euh, wax nga dëgg grand dama nekkoon ci àll bi di ñaxtu comme ni mu baree ni mu dalee ñu bari ci réew bi ndax ñàkk gis seen bopp gu ñàkk gis seen bopp ci réew mi. ma nekkoon amerique di def samay coupure vidéo di balancer ci internet bi Sa Ndiogou mu ngi koy wax ñu bari jàppe moo woon un donneur de leçon pourtant c'était juste une question de sensibilisation ma jàpp ne nag dañu toll ci phase phase implication ci mode de paradigme bi réew mi war a jël pour li ma dal man dal ci li ëpp ci sénégalais yi muy dund dund gu déggan jog ci réew mi loolu moom ma waral ma ñëw bi ma ñëwee nag dafa tombeek pënd ba wuri te olo yàlla olof njaay nee na buy taw kenn du fubéré moo tax ma bëgg a bàyyi ba taw bi sawet ma doog a commencé fubéré. non est ce que du ñàkk la gën a tooy. Hmm? waaw yow bi nga fekk réew mi léegi la wax jot. waaw mais wax jot na ñi war a wax war nañoo wax mais lépp day dépendre ci yéen ñi nga xam ne yéen a yore média yu Sénégal. Hmm. parce que damay toog di seetaan xam nga ñun ñu nekk bitim réew ñun ñoo ëpp jot ñu nekk ci réew mi ñun ñooy mën a xam ñooy mën a xam différentes émissions audience. yi am. ak xeetu doomu aadama yi wër di wax mais les mêmes waxkat ngeen di invité ñuy wax. bu fekkente ni loolu yéen it jàppale ngeen ñu ci ñi nga xam ne jël nañ seen i responsabilité gelé seen ay activité pour ñibbisi pour réew mi jëm ca kanam ngeen jox leen chance comme ni ngeen ko defee d'ailleurs ma leen ciy remercier jaakaar naa dinañ commencer même balaa taw bi sëwét ñibbi ñibbisi bi définitivement la wala da nga ñëw rek pour vacances yu delluwaat waa ñibbisi yi fii man dëkkuma feneen fii laa dëkk Sénégal sama réew laa ñëw hmm. voilà donc euh, mën naa nekk définitivement mën naa nekk tamit temporellement si vous voulez de toute façon fas yéeneetuma dem fenn ci àdduna bi di fa def au delà de deux semaines su ma ko suñu borom dimbalee ndax damaa jàpp ni bokk naa ci ñi war a tabax réew mi loolu lu ma sentir la daal lu ne ci man. mais est-ce que li la doon wax loo tey jii ñu wax ci àll kàlla ji mooy. Mhm. nekk nga bitim réew di wax lu la neex. Mhm. wala li nga bëgg a wax. Mhm. ñibbisi si réew mi xam ne feedu fii. nga ñëw ne. suma kuddu jàmm lay ràcc. Mm-hmm. dem toog jàpp sa njàmbur parce que li ngay wax bu doon ni ngëm-ngëm la ak engagement. Mm-hmm. boo ñëwee da nga ciy kon ne di ci ne. Mm-hmm. mais boobu da jàpp ni fee nga ko gën a mun a waxee mais bi nga ñibbisee na tekk tekk gi ragal la wala lu. non su ma jàggatee sa wax da nga may xiirtal da nga maa bëgg a xiirtal fit wala nga bëgg ma ko jiiñ wala nga bëgg maa iri ci ragal ñaar yooyu di ci benn. damaa tolloon étape boo xam ni dama doon décortiquer par rapport ak information yi ma am ci li tax gisuma sama réew di ko décortiquer te mosuma dégg ku ko wax ci réew mi de 1960 à nos jours dégg naa kuy wax ci diine di ci wax lu ne kuy wax ci politique di ci wax lu ne mais man li may dund sama diggante ak sama réew mosuma gis ku ma étaleel information yi ma toog lu yàgg dégg déggu ko moo tax ma ni gisuma ku ma ci gën a jekk pour ma ko ndax mën naa ko wax yow lan nga lan li li nga may laaj nii exemple par exemple yaa ngi ma wax sànq avant ñuy commencé émission bi nga ni ma wala Sanjogu moo moom ko wax lan moo indi titre ambassadeur bi. waaw ambassadeur bi maa ko autoproclamé wu. maa jël samay responsabilité autoproclamé wu ambassadeur de la jeunesse sénégalaise muy jeunesse boo xam ni plusieurs générations dañuy traversé ay traumatismes yoo xam ne dafa nekk ci réew mi nekk véritable bloca blocage yi nga xam ni moo bloqué développement wu mi ëpp ci. jeunesse sénégalaise ci époque bu mënti doon ñoom ñooy subir conséquence bi ba tey mosuma dégg ko ci wax donc ñun ñi am information yi moom laay wax de base yi ñun ñoo ko war a mën a étaler loolu tamit ma toog déglu gisuma ko ci wax moo tax ma jël sama responsabilité pour ñëw pour bokk ci ñi nga xam ne dañ koy teg ci kaw table ji pour ñu mën ñoo tenir compte ñun tamit ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ëpp ay jafe-jafe ci réew mi. Mm-hmm. mosoo ci wax comment ci loo ma laaj rek. loo bëgg loo jàpp ci ndaw ñi. Mm-hmm. da dama gis ni. yow France jeune bi nga bokk. Mm-hmm. mosoo dégg. Mhm. li ñu séq. Mhm. ku ci wax te fii muy ñun di ku mën ci doon. Mhm. mais li jeunesse sénégalaise di dund mais ñi koy wax. non am na lu ma déggul. mooy la par exemple mën naa autoproclamé wu ambassadeur de la jeunesse du titre bu honorifique titre bu jafe la parce que. mënoon na ma autoproclamer ambassadeur des analphabètes du Sénégal dans laquelle j'en fais partie mhm. et pourtant ci réew mi laa juddoo yoroo fi màgg fi jànguma j'ai pas eu la chance de bénéficier de l'éducation sénégalaise c'est pas de ma faute c'est du Sénégal ñu ngi wax conséquence bi mais cause yi musuma gis ku ko wax j'aurais dû mettre m'autoproclamer ambassadeur des enfants de la rue mhm. dans laquelle j'ai passé la moitié de ma vie ba tey mu ngi am am vingt-et-unième siècle soo di nga gis juróom-ñaar fukki xale yu taxaw am juróom-ñaari at yor ay pot di yelwaan avec un pays boo xam ni bëgg nañu mu développer loolu ba tey ñu cause bi xëy na ñi ñi war a wax nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñoom war a wax fi ñu jëmee réew mi kenn waxagu ci loolu nag laa jël samay responsabilité pour ñëw pour wax ko pour ñu tenir ñu compte am réew mënul développer ci àdduna te préparé wuñu à la base nit ñi te loolu moom moom manqué ci réew mi mm-hmm. waaw mooy la capital humain voilà capital humain boobu mais ci nga fekk nit ñi ñu ci wax peut yow da nga waroon wax ñi ci war a jëf mm-hmm. mais li ngay joytu ni mais jooytu nañ ko fi ba sonn est-ce que tey jii danga waroon wax ñi ci war a jëf. mais waratoo wax ñi ci war a wax. effectivement Sénégal kenn ku ne yaa ngi wax ci jafe-jafe yi mais xam nga nit ku nekk booy wax ci jafe-jafe mbir information yi nga ci am rek nga mën a wax. information yi nga am ci sa biir bopp moom ngay xalaatee moom rek nga mën a relayer loolu de maa ngi dégg ñëpp di def ay effort man pour man dafa faible parce que ba tey mooy li ma la ci conséquence la ñuy taxaw ci problème yi réew mi moom laa lay expliquer. Uh-huh. cest à Sénégal dafa créer ñaari sénégalais. ñaari xale yu am juróom-ñaari at kenn ki am chance u juddoo ci waajur yu teel a comprendre ñu koy yee 6 heures du matin moom ak rakam wala ñaar lañ ñett wala kenn anyway di ko sang ba mu set solal ko yére yu set jox ko sac à jox ko benn xaaju mburu ak ardoise ak ay kay ci biir sac bi dugal ko ci oto wala bon moo koy yóbbu wala ay parents wala école bi soriwut ñu mu dox di dem ci école boo xam ni dañ koy préparer préparation d'un investissement humain muy école française bi mu war fa dem bu génnee seen bundu ko rek dina daje ku tolloog moom âge fajar gi yëpp da ko yalwal mi ngi ci biir pot bu mu yor ni bokk ci mbedd mi même xale bi benn potu ndagg la ci yore yor ñaari miskit ak benn sondel ak benn cinquante franc boo xam ni sëriñ ba moom la ko sos beneen investissement la c'est-à-dire Sénégal moo raté dès le départ depuis à nos jours réew mi dafa juddu au lieu ñu teg des institutions fortes teg une un état créer des citoyens des patriotes sénégalais mu am benn fatalité boo xam ne du destin Sénégal du koy dund par rapport ak mauvaise interprétation yi ñu am ci suñu ay religion am ñoo xam ne dañoo téye politique bi am ñu téye diine ji kenn ku ne créer ce centre de formation jusqu'à présent ñi nga xam ne bénéficier dawuñu éducation boobu du Sénégal ñoom ñoo téye réew mi ñoom ñoo créer problème yi ñoom ñooy toog di wax te képp ku am chance su teg sa tànk ci biir école sénégalaise mënoo wax lu décanté ñun suñu ay problème parce que xamu leen ko donc loolu moom mooy res mooy li ma la wax la déglu naa de 1960 à nos jours musuma dégg ko moo tax ma jël sama ay responsabilité su ma ñëwee ci cursus ñaari doomu aadama yi ñii kii day dem ci école bi commencé de primaire à université am ci ñoo xam ni peut-être manque de moyens mooy tax du ñu continuer seen éducation ba ba fa mu dem mais lu ci bon bon am na loo xam ni Sénégal teggil na leen ko mooy lan bu ñu dajee ak man ci benn aéroport ñu jox ñu fiche pour ñu remplir suñu tur. cinq minutes avant l'atterrissage atterrissage avion bi moom bu wàccee rek day remplir jubali ci guichet man damay comaati ci aéroport bi di ut ku ma bindal sama tur kooku Sénégal moom moo ñu différencier muy deux poids deux ñoo ñooñu ci seen biir dañuy continuer topp seenum njàng topp seen ay études ñooy mujjee diriger réew mi quel que soit alpha ak lu mën di xew ñoom ñoo ñuy jiitee mu am ay techniciens de fait à un contexte doré am ay spécialistes ñoom ñoo ñuy faj lu fi amu ko su néew ci lëf ci dem ci ci ci développement ci réew mi ci ñoom la jóge ñun ñi nga xam ne ñoo jógee ci beneen cursus bi nous sommes des pièces maîtresses de la machine qui détruit ce pays et puis mu créé waat ay lobby ci seen biir kenn ku ne jog nag làqatu ci diine ji créer sa benn fragmentation ci biir jël nit ñi di leen zombifier ñu installé fii des temples de l'ignorance des laboratoires de lavage de cerveau et des cabinets d'hypnose c'est ça qui a bloqué le développement de notre pays il faut avoir le courage de le décortiquer c'est ça responsabilité dans ce pays <laughs> macha allah Cheikh Thiam euh, <laughs> ndaanaan la euh, dégg naa ko expliqué na yu bari waaw mais Cheikh yow est-ce que euh, problème bi fi nga ko jëmale est-ce que foofu la parce que pare na saay am na ñoo xamante ne bi am na école publique boo xamante ne bii fayoo dara defoo dara am na ñu bari ñoo xamante ne bii tey euh, seen i wayjur kii wu woon mais am na ñoo xam ne seen i wayjur ñoo préféré daara lu tax loolu euh, ñëwoo ci gis-gis boobu ci parent bi nga xamante ni moo ne man sama doom du jàng école am na am na koo xam ni moom daf ne jëy jël doomam dugal ko école. Mhm. léegi lu tax nga wax ne euh, état. directement ba tey tudduma fi état sa diagnostic mooy li ma la wax sa niveau. yow information yi nga am ci nga poser question mais je vais approfondir man li ma wax. allez-y. gis nga une. waaw d'accord danaa gën a danaa gën a bëgg a maa ngi jégalu danaa gën a bëgg leeral. Mm-hmm. li may wax mm-hmm. gis nga teeñ. Mm-hmm. ci biir bopp jàmbur lañ ko teeñ lañ ko nen. tojtal ko fa deretu jàmbur rek lay dundee. Ah. jàpp na ni li mu nekk lépp dëgg la ñàkk a xam la. société bi moo wurta nangu loolu yéen ñëpp tukki ngeen ñii dem Amérique ñii dem France Amérique doom ji yaa koy ëmb juróom-ñeenti weer wasin ko deret ju bari nga ko. ñu dagg cordon ombilical bi nga taf ko ñu taf ko ci sa dënn nga jooy ngir mbégte mais pare nga ci xale bi hmm. yaa ko jur mais moomoo ko. parce que bi ngay tëdd ñu lay rewli sage-femme yooyu noonu énergie bi ñu dépensé ak li ñu def ci yow. Hmm. xale bi bu nekkee prématuré mu am ay couveuse ay yoo xam ne tubaab bi moo xalaat ba mën ko mottali bu juddoo ci juróom-benn weer dinañ ko aar ba du faatu. Hmm. ay doomu aadama ñoo ko def xale bi dañ ko war a ci lu amal njariñ réew soo ko tuddee tu fais allusion à une communauté daara ça concerne pas les sénégalais ça concerne les musulmans réew mi dañ fee war a teg loo xam ne képp ku juddi ci réew mi ak loo mën di mel ci àdduna dinañ la former ci loo xam ne da ngay amal njariñ réew mi donc loolu moom mooy débat bi le véritable problème c'est que nit ñi fii ci ay conséquences la ñuy tax la ñuy taxaw di wax mais cause duñ ko waxtaanee ci réew mi donc cause yooyu nag man moom ñu di sëñ bi waaw mais c'est que li nga expliqué nii mm-hmm. euh, yi da nga ma jox benn société boo xam ni dafa am nu muy doxee mm-hmm. mais am na ay faay société bi nga xam ni moom nga may wax mm-hmm. euh, maanaam drogué yi fa la criminels yi fa la ëppee. et pourtant ñooñ ñëpp société bi ñooy ñi nga xamante ne bii ñoo leen tatagal. Mhm. li nga wax yëpp jaar nañ fa. et mhm. pourtant terewut dellu nañ ci échec. parent bi nga xamante ne bii tey moom dafa gis doomam. Mhm. mu jàpp ni moom lii du yoonam. mu choisiral doomam beneen kii. kooku tamit moom moo ko choisiral beneen mbir am na ñu bari tey ñoo xamante ni génn nañ ci daara yi. yi ngay wax ni jaar ci lii lépp ngay wax yelwaan def lépp. et pourtant tey nit ñu mag lañ ci réew mi. Mhm. est-ce que ñooñu da nga leen a mën a tuddee ne dañoo échec. non non cest man li may wax man ci laa jaar damaa juddu ci ay waajur yoo xam ne. waaw ah, mais yow kenn nga lekk ci ñi ci. waaw non dama lay mais <laughs> représenté woo ñu. non d'accord d'accord naa. <laughs> mais dama ne dama jël samay responsabilité di wax di dox di joxe les vraies informations de base est-ce loolu mooy dëgg gu universel. que loolu sa dëgg la. non dëgg sa gis-gis la sa benn vision nga am. tout à fait Sadio mais yoroo monopole vérité. dëgg lu baax li ma lay wax. waaw dama ne am réew Mm-hmm. une nation qui aspir réew moo xam ne da ngay développement. Ah. ku feebar. Mm-hmm. war a faju mm-hmm. ku xiif war a lekk soo juddoo war a am dëkkuwaay. loolu bu ñu koy tabax du ñu xool lu parent bëgg te amalul njariñ réew mi fii nit ñi dañoo mës a topp li ñu bëgg mais li ñu bëgg de 1960 à nos jours su amaloon njariñ réew mi tey nit ñaa ngi ni ci mbedd mi di manifester kon du am dama ni la fi nga joxe allusion muy États-Unis effectivement. moo ëpp ay drogue fii. mais foofu doo judd nekk drogué état bi dina la yiir yar la. jàngar la bàyyil ma ñëw bàyyil ma ñëw Amérique soo juddoo. Mhm. doo nekk drogué ba ba ngay am fukki at ak juróom-ñett. Mhm. réew mi da lay topp. Ah, dina la encadré non mooy li nga xam am na ñu nekk drogué te amuñu fukki at ak juróom-ñett. loolu mooy yow li nga xam s'il vous gànnaar waaye xam nañ ñu <laughs> guddi la ñuy. reer waaw mais déglu yaa ngi dégg. xam nga. demuñu gànnaar waaye xam nañ ñu guddi la ñuy reer. waaw xam nga tey li tax sa débat bi di xumb te dagan mhm. mooy bële da nga doon toog rek di wax fii nag da ngay toog nit ñi da ngay wax ñu wax yaa ngi dégg li ngay wax noonu ci Amérique euh. yow wóor na ne amut gis nga ñoo xam ne bi ñoo amut kii nekk ay drogué c'est-à-dire cest lii ñuy def nii waaw day day day prolonger débat bi jeexal sama temps te amalul njariñ askan bi xam nga lu tax tey soo toogoon <laughs> waa mais s'il vous plaît man s'il toog dina déglu ngay wax loo mais déglu ma waa déglu ma xam naa xel ni lii amut waa déglu ma Sandiogou dafa am benn téer benn bundkat bu ne mm-hmm. bul mas a gëm benn téere boo xam ne jàppkatu jàmm moo ko bind. Mhm. parce que ci biir téere bi du mas a wax ne moom jëf ju bon la daan def. Mhm. man ma dolli ci ne. bul mas a gëm téere boo xam ne jaam bi ci boppam moo ko bind. Mhm. ndax ci biir téere bi du mas a bind ne gàtt xel moo ko jàppoon. day victimiser li ngeen di def nii c'est de la victimisation. Mm, xam nga tax non mais bàyyi ma ñëw waaw bàyyi ma ñëw tey su ma demoon ci biir ay. yow yaa su ma demoon ci ay. yow yaa ma yow yaa ñëw présenté ñu ñaari xale nga jël kii def ko victime mais danga may bàyyi et pourtant la bëgg wax ne la chemin boobu ngay wax. am na mm-hmm. ñoo xam ne ci lañ jaar. Mm-hmm. tey li ñu am lépp ci lañ ko amee am éducation boo xamante ni éducation bu extraordinaire lañ am na ñoo xam xale boobu ngay wax noonu am na ci ñoo xamante ni jaar nañ ci chemin boobu te demuñu fenn. dama la bëgg a xamal ne la ñaar yëpp am na li may wax ak li nga wax bokkuñu niveau bu ñuy wax da nga may déglu ah, non de grâce da nga may ah, bàyyi yaa ngi ci kaw man maa ngi man maa ne ci suuf man maa ne ci suuf ah, da nga may déglu bu baax li ma ñaari doomu aadama yi mm. man ci benn bi laa bokk waxu réew la wax réew la ñuy wax man man ci benn boobu nga bokk laa waaw d'accord naa moo tax ñun dañoo war a dimbali réew mi ñun ñi nga xam ni hmm. dañoo jógee ci éducation traditionnelle de base hmm. mooy ñi judd ñu dugal leen ci daara hmm. walla ñu jaar ci école arab walla ñu jaar ci bëkk néegu walla ñu jaar ci ci ndonga daara ñun ñun ñun waaw mais xoolal ñun ñun <laughs> ñooy élément pièce maîtresse bi détruire réew mi. waaw léegi man comme man nag comme ñun nag ñun nag léegi non léegi dama ko bëgg a indi. Sadio s'il vous plaît boo xamante ne bi jaarut école jaarut daara. saa dinaa ci ñëw dama lay sama gii gi nag saa waaw déglu ma dama lay léegi nag faram fàccee ma non saa j'aurais souhaité <laughs> saa saa vraiment bëgg naa émission bi neex te xoolal émission bi ah émission bi émission bi dafa mel ni JT waaw ca France euh, ca TF1 ca en France c'est vous avez da ngeen am audience boo xam ne ah, les gens vous suivent partout dama bëgg li may wax ni c'est très waaw d'accord non non non non conférence ma damay wax loo xam ne am na sénégalais yoo xam ni peut arrangé na leen man li ma arrangé la man. Mm-hmm. dama judd ci réew mi gisuma sama bopp ci réew mi. Mm-hmm. di joxe information yi te du lu nit di dindi mën naa naqari nit ndax man li lu ma dund la. Ah, dama ne mm-hmm. dañoo nekk ci inaptocratie les gens ils sont pas aptes ici nit ñi matuñu parce que xam nga lu matuñu. dañ laa war a préparer ci loo xam ni xam-xam lay doon nekk mën-mën. wuruñu laa préparer ci loo xam ni ngëm-ngëm lay doon nekk looy toppee. loolu yow mën nga am interprétation bu la neex nga jële ko mais man li may wax dafa leer gis nga ci jamono bi fi mu toll Sanjogu. soo amee chance su jël train jógee France jëm Angleterre mm. train bi jaar sa ko appelle le tunnel sous la Manche ci suufu géej gi 53 kilomètres. saxaar gi jaar ci suuf su lu ñuy wooyee crêpe bleue fa la ñu bënn jël fer créé ci ay tunnel ñu bënd ko saxaar gi di fa jaar. anglais yi di def ne ñu def ñu dajale ci digg géej gi. soo jógee New York jëm New Jersey saxaar gi ci suufu géej gi lay jaar monde bi foofu la toll américains yi di defar ay capsule jaar la NASA jëm ci jaww ji di ko xotti di xool lan lañ mën a jëlee planète Mars pour indi nit dund ñetti téeméeri at loolu kenn du ko jàngale ci daara monde bi foofu la toll sañ bi a jox exemple ci moom fii rek nit am na ko ci beneen réew boo xam ne xamuñu koo ma wax mu tekki fii te jàngul dara boo demee ci beneen réew nit tekki na fa la même chose te jàngul dara xamut yàlla loolu ay wax yi euh, ay wax yi ku daanu ci sareet la il faut ñu jël réew mi au sérieux ñu teg les vrais problème ñu problèmes ñu diagnostiqué ko defar doomu aadama yi pour réew mi bën a mën a dem fi mu jëm sinon yéen audience yi ngeen bëgg wala ni ngeen bëgg di ko waxee nit ñi di ko waxee ci seen plateau yi vous créez des influenceurs et les influenceurs créent des suiveurs man je ne suis pas là pour ça. xooluma lu neex ay mbooloo wala lu naqari ma damba wala luy joxe vue luy defar réew mi te lii may wax képp koo xam ne concerné la nañu ñëw ñu ànd ñu foxat réew mi defar. d'accord voilà. Euh, euh, mm. yow bi nga nekkee tout tànk dañ la dugal école nga bañ a jàng wala sa waajur yi dañ la dugal. daara lan fan lañ la ci dugal. une question damaa juddoo Sénégal. Mm. muy suñum réew. ci mm. biir Sénégal ma juddoo ci benn espace. ñu koy woowee Touba Mbacké. ma juddu fekk samay parents amuñu chance su dem ecole d'abord ma juddoo ci quartier wala ci gox boo xam ni sax daanaka école jegewuma kooku su nekkee samay parents incité wuñ ma pour ma dem jàngi c'est pas faute c'est faute du Sénégal c'est la faute du Sénégal. Ah, mooy li la c'est une question d'information. loolu laa bëgg laaj c'est une question d'information de amul waa xaaral école dafa amul woon wala amuñu woon accès ci école wala wala mënuñu la woon yóbbu ci ecole ñoom ñoo amul moyen pour yóbbu la école. moom laa xam nga souvent Sénégal damay seetaan seen émission yi mu am solo lool mais parfois da ngay gis bu posé ci question dem ci demin boo xam ni question bi su nekkee ki war a tontu am na information de base téléphone télé bi ci boppam du attan réponse bi te lool la non télé bi du attan réponse bi loolu laa lay bajal dama ne la damaa juddoo sur le sur le tandis du territoire ci benn espace ma judd fa ñu ni ma tu n'as pas le droit à l'éducation noonu la amee biir Touba mu ngi fay am ba tey noonu la amee Daaka ja noonu la amee dans le Fouta des sénégalais yoo xam dañu leen a xañ seen aq ak seen yelleef pour du ñu jàng buñ ci continuer seen télé bi du ko attan te loolu laa leen di bañ a voilà bu comme attanu ko bàyyil ma jàll ci beneen ok jàllal euh, yaa ngi wax waxum États-Unis xale yeeg nangam ak nangam États-Unis defe naa ni banditisme rayee drogue ak yooyu foofu la ëppee ñun ñi di wax yow dem nañ fa gis nañ réalité yu ñuy dund foofu mm. am na luñ ci jot a gis léegi benn mm-hmm. beneen bi euh, yow dañ la daan gis ngay nekk euh, États-Unis di dal ci kaw chef religieux yi rawatina waa Touba yi mm. say mbokk jóg mhm. tere la nga bañ mhm. lan moo dox ci diggante bi entre temps ba nga changé doxalin ba ñëw tax toog une question très pertinente <laughs> j'ai la chance dama am chance wala mal chance u visiter fanweeri réew ak juróom-ñeent ci Afrique 39 pays d'Afrique dëkk bi ci mujj judd judd 2010 muy Sud Soudan dem naa ca capitale ba Juba ma yàgg nag ci réew mu ñuy wax Tchad sillonné nooru Nigéria li commencé Kaduna Kano Zaria Jos ba protocole Gambaru dugg la càdd dugg ci nooru bi mu nekk espace bi nga xam ne moo ëppoon jàmm ci biir jamono yi ñuy voyager la voie terrestre mooy communauté musulmane du Nigéria peut-être lu jege 80 millions nekk ci benn espace ñu koy woowee Jean Borno c'était dans les années 2000 2001 c'est la même chose li am Touba moo fa am ay nit ñoo xam dañuy judd ñu xirtal leen ci éducation traditionnelle réew ma ci affaire njàngum diine njàngum diine mais bi ñu demee ba 21e siècle avec l'explosion de la technologie maanaam ñu am accessibilité ci internet di xam ni àdduna bi ndekete yàlla am na beneen yàpp bu dul géej di ko dañoo vulnérable cette vulnérabilité boobu nag ay saay-saay dañuy jaar en dessous di brandir le flambeau de l'espoir di leen dundal yaakaar mën naa nekk ay organisation terroriste mën naa nekk des politiques malhonnêtes menteurs politiciens opposants ou partis au pouvoir di jël xale yi di leen dóor ci leneen bi may ñaxtu di wax ci li ma gisul sama bopp ci réew mi Touba laa dëkk du du ma dafa am lu ma échappé woon. li ma juddoo Sénégal li ma juddoo Sénégal juddoo tubaa gisuma sama bopp ci biir réew mi te Sénégal teg ci kaw Touba benn complot boo xam ni man mi fa juddoo di taalibe may subir le pot cassé loolu laa échappé woon may wax di ko teg ci turu diin ci sëriñ si effectivement parce que ñooy samay tuteur et su ma juddoo ñu ne may waroo jàngi ndax sëriñ bi bëgg fi école man ma damay jàpp ne njabootu sëñ ñoom ñoo ma xañ ma dem jàngi loolu la am amoon mais dafa am lu ma rattrapé bi ma gisee réewum Sénégal jaxasoo politique bi ubbeeku ma gis ay organisation yoo xam ni sorewuñu ak la ma gisoon Nigéria mu war ma nit ñi bis bu tàkkee na mu créé Boko Haram noonu lay créé fii man ni nag naa dem jubóog samay bokk certes maa ngi xañ maa ngi xeex xañ gi ma xañ sama bopp ci réew mi te Touba laa doon tudd waaye nag damaa war a dem ànd ak Touba ndax mooy cible li nga dañ la wax loolu jamono jii nii mm. est-ce que amoo ci beneen gis-gis bu gën a profond ci li ngay wax mooy da doon nelaw ba koy yeewu ci université moom ko daal ñu ubbi ko fa loolu bu nelee sëriñ bi moo bañ euh, ñu jàng loolu di nga ko gëm mm. soxna si. Hmm. damay rafetlu université wu sëriñ Serigne Mountakha Mbacké bi mu def. te ñun ñëpp muy une fierté pour ñun. Hmm. mais damaa jàpp ni Sénégal Touba dafa am lu muy représenté ci biir réew mi bañ nañ ko ba rapport bi génnee nit ñi ñuy wàññi ci gox bi ci gox yi Sénégal nee nañ millions yi ëpp fu ñu dajaloo biir Touba la tey Touba bokk na ci Sénégal fu ëpp ay jeunes ñu ëpp doole ci biir réew mi état xaaruñ ci état dara mais état tamit defalu leen dara. te bokk nañ ci ñi ëpp jom ci biir réew mi at boo demee ci secteur informel bi fii atelier terre boo dugg ci biir réew mi waa Touba nga fay fekk bu dee menuiserie maçonnerie électrification même ba ci Jakarta yi boo demee biir Afrique de l'Ouest capitale boo dem ci biir Afrique de l'Ouest liggéey boo fa gis Sénégal di fa liggéey waa Touba la man bi ma nekkee ni yor ko yor fa atelier tailleur 1200 tailleur jaar nañ sama atelier pour ma jël leen ñenn ñi dañoo wu kon Touba xaaruñ ci état dara mais tey bu ñu leen jàppale woon mën nañoo développer bi mais gisuñ seen bopp ci réew mi. waaw mais gisuñu seen bopp ci réew mi jeunesse Touba. xam nga la xam nga la ko war a njëkk a nangu. Hmm. Euh, que ni yow sa yi nga doon def nga nangu publiquement ne da ngaa juum loolu nga war a njëkk a nangu. Euh, nga tàmbaliwaat parce que noo waat li ko dab mooy ñàkk a xam moo ko moo ko dab moom dafa xamut. seex yow da ngaa xamutoon ba noppi di wax loolu mooy erreur nit balaa ngay wax da nga war a xam ba pare léegi yow est-ce ne kon di nga ñu bari ci erreur gi nga nekkoon parce que yaa leen ci yóbbu ñëw lañ doon suivre. ci lan nga dugal leen ci ay njaaxum. mooy lan ci lan ci biir activisme nga nekkoon rek. non xam nga Sanjogu. yow yaa nangu ne moo ne de eh, eh, eh, da doon nelaw ñu yee ko. waaw Sanjogu non non mi. Mhm. gis nga ni mhm. yow nga am vision. Mhm. am say ngëm-ngëm. bi nga demee ba ngëm-ngëm yooyu nga bëgg koo doxal ci réew mi. Mhm. nga tànn capitaine Dieye. Mhm. capitaine Dieye. Ah, maanaam loolu mooy wane def nga xam réew mi quoi. grand dinaa ñëw sa question. mais damaa bëgg a daaneel ak Sa Ndiogou non danaa ñëw ci sa question grand s'il vous plaît ah. damaa bëgg ñëw ci Sa Ndiogou parce que dañoo <laughs> taxaw ci dañoo taxaw ci kaawu Touba dafa baat bëgguma la ko woon wax sax mais Cheikh da nga réeroon lu neex waay wax ma man aw ma problème boobu xoola baax li ma damay tontu saa xam nga <laughs> nekk lu sensible ci biir réew mi waaw xam nga ndax comprendre nga li may mais sensibilité boobu man je paye le pot cassé le natif de Touba parce que Sénégal daf may exclure ci jeu bi ci lu bare bare dama lay jox benn exemple dafa am ñaari xale yuy góor yu jóge fii am 26 ans ñëw États-Unis dem ci benn restaurant di ut liggéey restaurant bi jël leen ñuy liggéey gaz bi explosé restaurant bi tàkk ñu jëlee ci ay gaañu gaañu ñoom ñaar ñëpp ñu dagg seen i tànk kenn ku ne ñu jox la 100 million dugal la ci avion indi la nga ñibbisi xale bi góor bi dëkk Géejawaay jël 100 millions dem jënd ci terrain bu baax tabax ci R plus t mettre ko en location appartement bu ne mu luyee bi xaalis bi jeexee mu dem ci banque ak kayitu këram ñu lebal ko yeneen 100 millions mu ñëw ubbi kenkaayiri di jaay xale bi dëkk Touba dem jënd biir Daaru Xudo zéro mat ak jumaa ji tabax ci R plus 3 munu ci am 75000 francs par appartement mu jël kayitu këram dem ci banque di ci leb kayit ñu ne ko kër kayit kayitu kër gi ñu fi indi amul valeur juridique te ñoom ñaar ñëpp ay citoyens sénégalais loolu complot bu Sénégal teg ci kaw Touba a daaneel fi nga wax dafa nekk lu sensible ci réew mi luñ ci wax dañ ko war a wax jeex dama ne la mm. nekkuma ni damaa jumoon de damaa def vidéo ni man Cheikh Thiam activiste bi daan wax ci Touba li tax gisuma sama bopp ci réew mi am ñoo xam ne ni ñu koy dégg neexu leen maa ngi jéggalu di jël njëggal li di ko teg ci loxo sama sëriñ sëriñ Abou Mbakem sëñ Abdou Fatah mu teg ko ci loxo sëñ Abdou Fatah mu teg ko ci loxo sëñ Abou mu teg ko ci loxo xali général de Mouride. man njab man ndaw dama lay wax rek dama lay wax man damaa damaa jégalu ba loo xamutoon ba noppi di wax. waaw mais mais loolu ça arrive à tout le monde. am déggoo am lu la dab nga xam ni ci te nga nekkoon ma ne la balaa ngay wax da ngaa war a xam. waaw non Sa Ndiogou fi ngay taxaw nii arrangé wul wu émission. yow la arrangé man damaa bëgg ñu def émission de haute facture s'il vous plaît monsieur. li may wax ni c'est vraiment daf ma ñor li ma lay wax nii. Cheikh yow fi mu toll lii moo tax xam nga. Cheikh lan mooy sa problème hmm. di nga gën a réer waaw d'accord naa xam a la moo la moo tax. Mhm. Euh, maanaam dangaa ngaa jàpp ni xam nga te xamoo. waaw d'accord loolu mooy loolu mooy erreur loolu mooy erreur bi gën a rëy. <laughs> mais amul problème. non c'est xam nga xam nga tey Omar dafa génnewaat ke benn affaire xam nga yow c'est que. ce mhm. choix capitaine Dieng. xam nga loolu erreur gënu koo rëy. loolu grand bi la dinaa la tontu bàyyil ma tontu la yow ba pare bàyyil ma tontu la ba pare. xam nga su ma daanee ci loolu may xool. bi may ñëw bi may ñëw di wàcc aéroport waaw y a trois cent cinquante jeunes waaw yoo xam ne ñoo ma gàttandu aéroport mm, c'est du jamais ci activiste mm-hmm. te ci jeune yëpp biir Touba la ñu juddoo la ñu dëkk mm-hmm. di liggéey ci biir Sénégal mais ñëw defal seen bopp moyens yi ñëw teertuma aéroport mm-hmm. bërki démb laa jógee Kazu Rajab bi ma demee sëriñ sëriñ yi ñi nga xam ne ñoom la Kazu Rajab gi concerné li muy xat-xat-xat kenn ku ci nekk wéet naag man ñu toog waxtaan njabootu sëñ Tuubaa gi am na fu seen maam jaaroon ak tubaab bi fan la mujjee waaw jéggal leen ba bind ca xasida goo xam ni te instant bi nii. li ma junj ci nooru Nigéria bi. Mhm.

comme jégalu nga comme jégalu nga Touba. comme jégalu nga Touba. waaw léegi nañ jéggi Touba. jéeg waaw jégalu naa ko nañ ko jéggi. ah su ma ñëwee ci léegi capitaine Dieye. waaw su ma ñëwee ci capitaine Dieye. man comprendre naa ni ngay waxee yow sax sa bopp taxulaa jóg. mais pour sénégalais yu bare. dinañ ñemee Cheikh Thiam ak niveau bi mu nekk ndax dañ ma koy wax pourquoi may ànd ak capitaine Dieye c'est normal xam nga lu tax. li politique yu Sénégal classique bi gën a réussir. Hmm. mooy ils nous ont mis dans un bulle dañu dugal foo xam ne ñun ñun ñuy dund dund gu déggan ci réew mi bokk rang social li ñu njëkk a def ci ñun mooy ñàkk gëm suñu bopp ba képp ku génn ci ñun di woote ñun ñoo lay njëkk a xeeb maanaam réaction boobu nga ma jox taxu la taxu laa man ñi nga xam ne bu élection tey ñoom ñoo koy jiite juru juróom kenn ku ci nekk wax na ma ak yow ëpp une ci téléphone ñi am na ci ñoo xam ne sax déplacé wu nañu fii ñëw fekk si man yoro ko pour man ak ñoom ànduma ak ñoom parce que xam nga lu tax kenn amu ci information yi mën a décanter réew mi ci situation bi mu nekk capitaine Dieye ñu xam ko ak ñu bañ ko xam maa moom dañuy converger ci lu bari ci loo xam ni moo tey réew mi ma xam ni kii gëm na ko xam na ko looloo tax ma ànd moom comme loolu loolu ngeen gis. loolu loolu moom mooy li nga xam ne si ni moom mooy. la est-ce que nekkul lii dal. Eh, eh, du du ma utiliser sax yenn baat yi. Hmm. parce que j'ai beaucoup de respect toi. tout à fait mooy yow. Hmm. daa am ci situation boo nekkoon. yàlla dogal la nga def aventure dem ci leneen. Hmm. maanaam da nga ne bi ngay jóge fii xamoo dara. maanaam liñ la waroon tàggatee des na yu bari wax nga ko mm-hmm. mais yow ku lay dégg xam ne da nga assimilé lu bari xam nga ko ci mm-hmm. tukki bi nga tukki ku dégg ni ngay waxee tubaab ak ni ngay wax am na loo xam mm-hmm. mais est-ce que Cheikh yow boo dem d'infériorité booy nourrir wala nga xaw a déculturé wu quelque part est-ce que nekkul ni loolu moo la sonal ba nga bëgg a rëñee say origine c'est important li nga wax ah. xam nga Senghor daf ne woon ouverture enracinement et ouverture su nekkee sa moo existe bu dee noonu laa ko waxee oui dama décomplexé wu xam nga lu tax damay dox bés New York ba mu jàgg ma fakkastalu daanu bi ma daanoo matul deux minutes délégation yi ñëw tiim ma ma xool muy ambulance ak représentant wu maire New York ak waa service d'hygiène corps yi nga xam ne ñoo jëm ci lépp loo xam ne dañ ko fay teg pour mu dox ci àq ak yelleefu doomu aadama ñu teg ma ci oto yóbbu ma biir hôpital li war ci man ñu def ko pendant ñetti ay bis ma tëdd ci hôpital bi ma paree ñu laaj ma ndax am nga lu la yóbbu ma ni déedéet ñu jël oto ci biir hôpital bi boo xam ni wanewut lenn mbargan mandarga ni ci hôpital la jóge yóbbu ma sama kër oui dama dama dama complexé bu fekkente ni Sénégal ñu ngi toll ci moment boo xam ni nee nañ lépp lu am yàllaa ko def taux taux de mar mort mort deewu xale buy doog a juddu Sénégal ci junni xale yuy juddu ci at mi nga am ci peut-être cent et quelques yoo xam ne dañuy faatu ci moment boo xam ne Amérique ñu ngi toll ci ñett ci junni boo jël ñett ñoo ciy dee dama am complexe dama am complexe ci ku ku ëmb biir Amérique dee ñu xam ni yow ëmb nga état bi dalay topp topp xale bi di la aar di def ci yow li war ba ba non mais damaa complexé effectivement damaa complexé bu dee loolu moom mooy complexé damaa complexé ah, waaw bu dee loolu mooy complexé grand je suis vraiment saa yoo leen ko bëggee muy muy saa yoo leen ko bëggee grand. li mu wax nii bu dee loolu la moom. Hmm. nag sant yàlla. loolu aussi bëgg na réew mi egg foofu aussi vraiment. Mm-hmm. ay man anu anu ah, ah, ah, waaw non du question sax mais mais Cheikh ñu ngi lay <laughs> gërëm bu baax di la di la sant émission bi neex na wax na fi ay wax ci benn wax wax na fi ñëwaat du ñëwaat dina ñëwaat dina ñëwaat man xam naa foofu day ñëwaat di nga ñëwaat waaw il faut mu ñëwaat ñu waxtaan dégg nga mais di kontaan ci yow bu baax a baax bu dee am naa conseil bu mu lay jox mm-hmm. li nga wax nii yëpp mm-hmm. am na loo xam ne amul ci réew mi ñun moom li ñuy dund. Mhm. leneen la mais da nga waroon def comme si yeneen moodu moodu yi. Mhm. maanaam yi ñu gis. Mhm. ñoom de solution bi ñuy apporter mooy. jëlee ay ambulance ut ay partenaire ut ay lépp pour régler sa problème. mais ah. moustiquaire li fi li nga wax moo fi ne de. joxe mais defoo dara pour dindi ko aussi. tout à xam nga xam nga fi ngay dugg. non non je damay daaneel mais xam nga ça dépend li nga ma wax. li li nga ma wax su ma ko traduire ci sama xel peut li nga bëggoon ma wane ko mooy lu may def ci social. sa hmm. dépend réussite tukki dafa bari ay interprétation yow définition bi nga am ci réussite bi ak bi mam du benn le Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dafa nekk ci crise et solution wu crise bi ci boppam dafa nekk ci crise mooy ignorance voilà il faut nettoyer ce pays qui est inondé de l'ignorance il faut ñu defar ay nit bala ñuy am ay ambulance li mu wax ni xam nga ni mooy lan merci saa yi Cheikh bu dee wax ni mooy ñëw naa waaye indiwuma dara bu kenn ñëw loolu la wax fi mu toll du ma la wax kañ la mais dinaa dinaa la woo ci focus dégg yow ambassadeur de la jeunesse sénégalaise ñu ngi lay jaajëfal bu baax waxtaan wi am na solo vraiment jëlee nañ ci njariñ euh, lu bari génn na fii macha allah merci beaucoup ci disponibilité bi ñu dem euh, jëli euh, actualité du jour. invité saay li naan bi invité ku ko am <laughs> loo di wax bi invité saay waa ndaanaan la nga ni. li ñuy jël teg ko sama ginnaaw eh, xam nga xam nga ñun ñi yore sooy maa lay bi nag bu ko bi jëlee ñu teg ko sa ginnaaw. saa moo koy gérer lii lépp saa la saa mooy kii di maa ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla jàmm di am mbégte bu baax jàkkaarloowaat ak yéen. nuyu ko moom forox forox. ñu ko kan la Baara Dieng mooy kuy Baara Dieng. tak tak tak. <laughs> Baara kay dinaa ko boole njënd njënd yëpp Baara Dieng ñu ngi koy nuyu bu baax borom di du weekend Eh, di ko ñaanal yàlla jàmm di la ñaanal yàlla jàmm it de wax ni daal tabaarkàlla macha allah eh, di wax dégg naa li ma baar a wax danaa di la kar ci bunt bi di ànd ak yow di yéeg ci escalier yi nuyu ko moom madame jo madame Dieng lacrymogène moo ko jàpp lépp di wax policiers yi ne wax ne wax ni lii lépp rek li ko waral xam nga kii jigéen la xamuñu seen lacrymogène lan la mën a indi ci ay dégâts tax na fi mu toll nii affaire yaa ngi koy kii eh, ñu ngi koy ñaanal yàlla jàmm xaritu sëriñ Sidi moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Alaaji Sanjoogu Mbeng mi nga xam ne mooy eh, eh, mi déplacé moniteur bi ñu ngi koy nuyu baax di ko ziara futur maire de Kër Massar Omar Bun Khattab Gueye nuyu Bilal Diatta ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk foofu ca prison ya mboolem ña fa ne ba ci Bilal ak ñëpp rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm ci kanam tuuti après Adja ñu ñëw ci problème boo xam ni daal dafa amoon ci manifestation bi vendredi bi mu amee nag euh, ñu bari choqué wu ci ndaw soosu ñu jàppoon police bi doon mbéj mbéj yu métti ba ñu dugal ko ci pick bi am na ku ñu doon taf ab photoom ni moo def jëf ji ñaaw jooju baayam ñëw na fi policier boobu baayam ñëw na fi waaw léegi nag ndax mooma ndax du moom lu tax ñu taf doomam loolu lépp dinañ ci ñëw expliquer na cas bi yëpp ni demee d'accord ci kanam tuuti lay doon euh, incha allah aca ma indi waaw euh, ajaratu comme ni ma la ko waxee sànq rek ONG Jamra nag démb woote nañu ab conférence de presse euh, imam Makhtar Gueye yëkkati ci ay kàddu jëmale ko ci ñaari candidat yi nga xamante ne nii fas yéene woon nañu bokk ci élection yu ñu fas yéene woon amal ci 25 euh, février 2024 bi te ñu fombandiko ba décembre moom nag nee na ñooñu candidat yooyu noonu dafa am benn lobby bu nga xamante ni nii mën nañu wax ay homosexuels ak ay lesbiennes ñoom ñoo leen financé ba wax nag daal di euh, tuumaal ki ñuy wax madame Anna Bor moom mi nga xamante ne nii moo nekk chef de mission Union européenne bi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñëw ci réew mi ngir rek bëggoon na superviser lii di élection présidentielle yi kàddu yi mu yëkkati ñu dem xool yi ko dellusi si dañu am ay président groupe parlementaire wala président groupe parlementaire yéen foofu ca Europe dañu am groupe parlementaire LGBT ndaw si mooy vice présidente bi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 ndaw si nga xamante ne nii nee na actuellement nag moo nekk vice présidente intergroupe bu LGBT maanaam góor jigéen yeeg lesbienne yeeg moom mooy seen vice présidente moo tax nee na dafa nekk loo xamante ne nii mën nañu am influence boo xamante ne nii du nekk boo xamante ne nii bu arrangé réew mi la moo tax muy sàkku ngir rek moom mu dellu fa mu jugee te bàyyi yeeg Sénégal seen ay élection ñu ko comme nu mu waree Omar ma Imam Matar Gueye day tuumal na itam ñaari candidat yoo xamante ne nii ba léegi indiqué wul ñan la. mais madame Bor mi moom wax na ni nañ ko fi jëlee. waaw Mame Matar euh, point de presse bi doon def Jamra wax nañ ci rapport élection wax ci yu bari même euh, ñi ñu sax teg euh, ay fitnaak ñi ñu rey ak yooyu bëgg nañ mu leer xam na loolu lépp lu am solo la comme ñoom organisation la nekk ONG boo xam ne organisation non gouvernementale loolu lu leen war la parce que actualité bi toll ku ne daa war a jug wax ci xalaatam ak ni mu gisee léegi nag bu dee nii dafa wax euh, ci candidat yooyu fi mu ci yem fa laa yem parce que dafa yomb trop nga ni ay candidat yoo xam ne waa LGBT ñoo ne yabal yow mënoo wax candidat yi ñii la ak nan la ak naka la ak kan moo leen yabal quoi xam nga loolu aussi tamit dafa yomb waxu ko avant tey jii ñi ngi tey jii waroon na fekk ñu toll ci dix jours campagne ah kon tey bu nu toll ci campagne bi tey jii est-ce que dina wax lii. maanaam moment bi ñu jàppoon élection yi tànn candidat yi la ñi ñooy vingt candidats bu ko waxoon ci jamonoy parrainage ba mais du leen pare parrainé ba ñuy jàll mais tey jii bu doon ñi ngi ci campagne bu béy wéy na mbuus ku te moom mu xamoon ko bu yàgg te waxu ko te ba tey jii nangu nu wax ñan la kon fi mu ci yem ñun foofu lañ ciy yem duñ wax ni am na wala amul mais foofu lañ ciy yem mais ni mu ko waxee moom dafa xaw yomb nag na ma baal ma mataar beneen bi mooy euh, ki muy tudd xam na des fois personnaliser mbir. dafa yomb tamit parce que boo xoolee tubaab yi ak ni ñuy doxee ak li ñu gëm ak seen culture loolu même boo ci àndul da nga leen koy bàyyee mais élection fu mu am ci àddina observateurs yi dañuy jóge fu ne ci àddina ñoo di observer les élections ci biir observateurs yi nag dina am ñii dina am ñee Union européenne du ñëpp ñoo nekk loolu mais bu seen njiit tax nekkee ci ñoo xam ne dañuy gërëm loolu wala dañ koy promovoir mais ñi nekk ci observateur union européenne bi ñu fi ñëwee ñëwuñu fi pour ne sénégalais nan nekk góor jigéen ñëwuñu fi ne dañuy soppi ñoom dañ fi ñëw pour superviser les élections ñoom bi ñuy ñëw seen cahier de charge ak li leen indi ñoom wax nañu ko. ñu wax leneen Mamatar Kay moo ñëw wax ñu leneen mais ñoom tey ji li leen boole woon ak Sénégal xam mooy lan topp campagne bi ba mu jeex jour élection ñu yónnee seen observateur ñu dugg ci bureau de vote observer élection yi après 48 heures après les élections ñu wan réew mi ginnaaw dem seen yoon. te loolu nag moom kenn du ko tere kenn parce que ni ay observateur di ñëw Sénégal di observer élection yi noonu la ay observateur sénégalais du jugee Sénégal di observer yeneen élection adduna bi mooy doxee noonu. Mm. loo tax pour man débat bi amul woon sa raison d'être quoi. ci euh, oh, jàngate li Mame Makhtar wax. ngi gërëm Imam euh, Makhtar euh, Jamra di ko ñaanal yàlla jàmm la itamit ci. taxawaayam yi muy am ndax ku nekk ak ci xeex ba ngay def te yaa ngi def émission yaa ngi alerter ak di informer sénégalais yi mm, politiciens yi ña ngay eh, dénoncer ñi nga xam ne mooy loi yi jaarul ci yoon comédiens yi ñu ngi def seen humour pour déflation bi fi muy toll moom ñu dénk ko loo xam ne wala bokk sax mu jóg volonté wu ak ñi mu àndal di xeex jikko yu ñaaw yi ak liy dugg ci réew mi te man xaw ma ko ñu bari xamuñu ko waaye li Omar wax sànq dëgg la dañu doon sopp comme yàgg nañ ñoo tuddal ay tur demoon nañ ba wax ñu fi ab liste bu ñu yor ni daañu ko génnee demoon nañ ba wax ñu sax itamit ay gars yu juumoon envoyé leen seen mail ab list ay tur wax ni daal ay tur yu góor jigéen lañu ne fii te ay kilifa lañ waaye nag loolu lépp pour mu saafarawu Adja Betty man sama xam-xam mooy dañu fee war ni tegg ñoo ñi ñuy wax te jublu ci loi bi ko mën a arrêté dañu waxoon ne loi bi dañ koo jàng-jàngee yóbbu ko assemblée nationale ngir ñu criminaliser mbiru góor jigéen te moo ko fi mën a jëlee ay candidat lànk ba tëdd ci suuf te ay jullit lañ ay gor yu seet wecc même bu dul ay jullit gaa jàngu bi sax bëggul mbiru góor jigéen mais ay gor la ñu seet wecc ñu jàng-jàngee yóbbu loi bi biir ensemble ñu lànk ne duñ ko voté am na ay ay ay candidat ñaar rek laa ci jot a xam xaw ma ñu ci des muy Pape Djibril ak Ousmane Sonko moom signé woon nañu dañ koy criminaliser ci li ma xamoon léegi bu dee am na candidat yu porté woon mbir mi ni ñoom moom bugguñu mbirum góor jigéen te ku indi loi bi ñu signé ko dinañ ci jàpp yaa xayti nañu jéem a poursuivre loolu bis bu loi bi amee ci réew mi góor gu la romb di dëngalu taat di euh, wëgër wëgëree ka jaaye affaire aka takk ay fer ak lama ka lamsala ka damm ay cër buñ ko dumaa ba muy bëgga dee bañ fóotal koy sagaram bu ngeen àndee dem ci baar bi yow da ngay am dangay am dëgg. mais parce que am nañu nit yoo xamante ne nii. dañuy wax loolu seen bind. loolu non loolu Ousmane Sonko. waxoon nañ nekkul tekkiwul ni dañu nekk. non Sonko ak Cheikh Omar Diagne. Mm. waxoon nañ ci ba ni. loi bi nag nañ ko defee ak xel ndax tekkiwul dafa am ñoo xam dañoo féminin. am na ñoo xam ne dëkk bi mm. seeni i cër lambax ne seen i baat nooy na seen i wax nangam na mais mbirum góor jigéen. tekki ko maanaam tekki ko nit ki kàddoom dafa nooy rek de wala dafa kii mais dafa am ñuy def acte boobu am na ñuy fi jàppoon bu yàggul ay faits divers yàggul kii ñu fekk ñu takkante ñu sañoo leen kii am na góor jigéen ñu fi jàppoon ñu jékki-jékki ñu dañoo am day ci dëkk bi dagal nañu visa dem nañu ñu ne bu ñu leen bàyyiwul dans quelques ñu wax ndax dañ fi ami bàjjen loolu laay wax mais waxuma rek ci cër yi nooy ak baat bu nooy ak nangam mais dafa am ñoo xam ne dañ koy dund mu leer ñu ci dara ci dëkk bi te boo leen laalee ñu la maa la fi ëpp maa la fi ëpp baat ci dëkk maa la fi ëpp ndey am na ci ñu ne bitim réew ñoo xam ne da wax ñun la bis bu ma waxee Sénégal tàkk dañuy sóob Sénégal du tàkk benn yoon xamuñu fi tous li war kay mooy loi bi mam Maxtaar Gueye ñoom waa Jamra nañu xool candidat yi porté woon yëf yi ni ñoom bu ñu leen falee dinañ ko génn dinañ ko euh, criminaliser ñu jàppale leen bu ñu leen jàppalee duñ fi nekk naan ndaw si ni fi génn nag kii mooy bàjjenu góor jigéen yeeg kii mooy seen maam ak kii mooy seen baay na luwaa bi dugg rek léegi nag bépp euh, politicien boo xam ne nag da nga pare pour doon luwaa boobu nañ la takk ba nga dëgër ñu boole laa góor jigéen yi sànni ci àll <laughs> bu jigéen waxal ci kaw <laughs> baax na <laughs> euh, euh, man de euh, mamataar Matar li ma li ma mënul nangu kii en fait li ma mënul accepté ci wax ji rek mooy vingt candidats ñoo fi nekk yu waroon dem élection nga ni ñaar ci candidats yi kii LGBT yi ñoom ñoo leen financé loolu aussi man je crois que du du loo xamante ni wax na ko ci waxtu bi mu ko waree wax man je crois que am na yoo xam à moins que mu bañoon a am information bi à temps même bu fekkee ni avec la délégation de l'Union européenne ci la ko am aussi mu wax ko defe naa ni yeneen candidats yi aussi bëgg nañ ñu wax kan la bu fekkee c'est avéré benn ñaar ñu ñëw ci euh, anam mi nga xam ni moom lay wax ni moom mooy chef de délégation mission européenne bi te mu ne moom it lesbienne assumée la même bu dee lesbienne assumée la loolu indiwu ko ci suñu dëkk tubaab yi ñoom seen dëkk nangu nañ loolu seen ñoom bëgg nañ ko nangu nañ ko ñun Sénégal nanguwuñ ko mais nag bu ñu fàtte nii ñoom aussi seen délégation ñoom ñooy désigner ku leen neex tubaab yi ku dem seen dëkk fekk leen ñoom di nga dëkkandoog ñoom di nga euh, bokk ak ñoom boutique di nga kii ñun nag réewum jullit la nanguwuñ ko ah ah jullit yee ëpp boog laa bëgg wax même chrétiens yi sax nanguwuñu loolu donc am na ci loo xamante ni pour un laps de temps la mission la ñëw dañ ko koy respecteel ambassade yi nekk suñu dëkk bi xamuñu kii kii ak kii lan la gëm wala nangam ak nangam kon nit ki comme mission la ñëw nañ leen bàyyi ñu dox seen mission après ñu dem dëkku fi defu fi loolu donc loolu yomb naa mu ñëw mais daal li mu yéex a wax ci ñaari candidat yi mënoon na ko leeral parce que setalul benn candidat loolu aussi loolu loolu man bëgguma nin ko waxee. vingt personnes nga tànn ci ñaar ñoo nangu waroon wax seen tur nommément bu dee dëgg la. dëgg la Mame Matar li muy wax dara leeru ko ci <coughs> amu ci dara lu ko leer boo amoon lu ko leer dajoon Mame Matar yi nañu dajaloo yóbbu ko ci yoon waaw parce que parce que li mu wax nii dafa garaaw comprendre nga euh, bëgg a toog fële lu ñëw nga nuuru ci fan yi élection xew rek mu ne soobu ci élection bi wëlbati ku naan te moom Mame Matar daal mbalaanum góor jigéen la bu la rombee bu mu salam loo ko ne ci la <laughs> déet accusé gul kenn. non non neewul kenn mooy góor jigéen mais wax na yow yaa ngi laaj nga tudd tur kii nga tudd tur kon kay tudd kenn mais dafa accusé waaw mais tuddul tur la ah déedéet loolu plateau bi Mamatal bu dogal benn plateau boobu am na ci ab góor jigéen ma xaar sama tur problème la mais mais c'est que loolu xam nga nañ waxante dëgg rek xam nga dafa am yoo xam ne dafa am dafa am yoo xam ne. boo xamee mu wóor la da ngay cité. waaw moo tax ma ne la wax na at naa yi de mooy moo tax dañuy jàppale ñu ne moom ñu ne déglu naa mais day wax lu yanu ma déglu déglu ma rek. waaw waxal lu yanu ma. Mame Matar kii di waxee waxam. na candidat yëpp dajaloo doon benn bopp yóbbu ko ci yoon. war yàlla dugg parce que li mu wax. li mu wax. ah kay il faut ñu. parce que Mambataar déglu ma rek Mambataar Mambataar Mambataar mënut a nekk fii di accuser nit ñi rek. yaa ngi dégg accuser nit ñi lii mooy lan. yow ay candidats yu war dem nga ne ñaari candidat ay góor jigéen a leen di jàppale. seetal lool yow wax joo xamante bi dara leer amoo ci dara lu la leer mbokki béti yi taxawuñu fii daan ne ñaari juge dañ leen a gerte amuñu benn preuve ndax benn la ah, benn la même même chose la waa PDS mais loolu tamit ñaari juge rek yem mais dañ ca diw ak diw ñooñ sax ñoo gën a avancé mamataar ñooñ sax ñoo tane ñoo ñoo tane ah <laughs> nee na ma bàyyi turam loo ciy bañ <laughs> yow eggali li ngay wax ah? loo ciy bañ ah, léegi dama ne ñooñu xam nga nee nañ gis diw ak gis diw du dëgg ne dañ leen a ger mais Mame mataar moom fi mu toll nii te Mame Matar dafa boo demee bay mën a wane photo naan mi ngi nii lesbienne avéré nangu na ko. mi ngi nii waaw kooku wane na ko lu tax muy wane photo kooku. kooku wan ñeme wuta tudd turu ñële dara leeru ko ci. mais li gënoon mooy saa nga ne ko lii nga wax. amul ci lu ko leer. Mame Matar dinaa ko défier fii. Hmm. yaa ngi dégg du indi benn tournée candidat sàngam la. man de gëm naa ni Mame Matar Gueye li mu wax am na fu mu ko teg. wala léegi nag maa ngi wax. candidat yi man moom. man moom gëm naa ko li ma lay wax mooy bu candidat yi yóbbuut yoon man dinaa porter combat candidat yi. yow koy yóbbu ci yoon. Mame mi. yow boo demee bu ñu la wax looy wax. daan ne daan dafa parce que dañoo bëgg a fal ci réew mi. mu ne ñaar a ngi nii ñoo xam ni ay góor jigéen ñoo leen loolu. te ñaar ñooñu tuddaluñu tur il faut mu tuddaluñu tur. mais nañu tuddal tur. waaw dafa war a leer c'est rek bëgg a yàq xelu nit ñi comprendre nga. waaw fi mu toll nii tey bi mu waxee loolu rek sànni nit ñi xam nga fi mu toll nit ñi ku nekk ngi wax naan est que du diw est que du diw loolu muy def noonu baaxut. boo mënta ñëw nga wax ne am courage ni nga waxee ba génne photo ne photo baa ngi nii. Hmm. noonu nga war a amee courage tudd ñooñu. mais mag mu toll ni moom jàpp nga ni loolu war dina ko def. maanaam wax loo xam ne dara leeru ko ci dafa xam nga ko. li muy def ni diversion la coow li fi mu toll nii c'est pour que ni élection yi il faut ñu reporter ko parce que ndekete candidat yi kan la ceeg yooyu diversion lay créé rek dafa ñëw joué rek am na ay góor jigéen loolu tax na ñu dañu reporter ko diversion rek lay créé loolu lu ci mën a diversion jaral yooyu yëpp c'est ne leen raxma

ñaari candidat bërki démb ñu ne la am na ñaari juge maanaam dañuy bëgg a wax ne affaire bi pëccëxoo na ba léegi sax mu daal di yenu kii bi dem ci gannaan ñaari nañ loolu lay def yor ab fotom yor fotom tubaabam di ko naan kii mi ngi nii góor jigéen nangu na sax moom léegi nag am na ci biir kii maanaam nii ñuy def nii baaxul baaxul politique mënoo jël candidat yi mm. ne ñii góor jigéen dañ leen di jàppale Mame Matar amu ci benn preuve bu amul preuve max la ne bu amul preuve day génne këyit amul preuve mais tànn néewul ñaar ñi la waaw. boobu la gën a garaaw. wax jee gën a garaaw. jeex na voilà. waaw léegi maa ngi digal candidat yi nañ dajaloo ñoom ñëpp. ay ah, yow néew da nga ko yóbbu ci yoon. waaw man nañ dajaloo. def ko lan nañ dajaloo. yóbbu ci yoon kañ. yow candidat yi liñ moo ñoom maam Matar ñoo bëgg liñ liñ bëgg di ñoo bokk liñ bëgg. muy dëkk bi nekk ci jàmm. waaw léegi moom ñoom waaye tuuma kese ngeen wax tuuma. ah tuuma daa ah, rëy ne est-ce que tudd na ay nit yow sa di fay. Ah, ah, waaw waxuma loolu dama ne. bu tuddoon ay nit xoolal xam nga bi ma ñëwee ma ne Omar na ma ak moom ci Mame Matar warul toog rek naan diw ak diw ak diw ak diw rek te waxul aw tur xam nga man d'accorduma ci mais dama ni jàpp naa ni am na fu mu ko teg. waaw am na fu mu ko teg. waaw am na fu mu ko teg. mooy mu wax diw ak diw. waaw loolu man d'accord naa ci naa mais man ma nga jëm mu toll nii moom damaa jàpp ne du waxantu noonu sànn ci ngelaw. waaw loolu moom wóorul waa en tout cas euh, doy na waar accusation yi moom graaw na dëgg yàlla nañu wax nañu wax ñan lañ parce que ki ñuy fal nag mu nekk président ajaratu dañ koo war a tànn dëgg yàlla nañu wax kan la parce que ki ñuy sam bëgg nañoo xam moom mooy kan waaw waaw yoon nekku si liggéeyam la def tubaab bee ñëw ci dëkk dafa tuxal dafa ñëw pour liggéey mamata il est intelligent xoolal li muy wax li ñu tel sénégalais wan leen ko de Justin Trudeau bu ñu yónnee Sénégal lu ñuy yónnee ab Justin Trudeau mooy premier ministre mais nañu xam ne dëgg nañu xam ne dëgg Canada bi fii la ñëw di def conférence de presse ci palais bi mais bu ñëwee ñëw pour mission mais bu ñuy yónnee tamit lañu ah, yónnee ab lees bi waaw lan la waaw ah. ah, lu tax ñu yónnee ab lesbienne wala góor gi man ñu ne ñoom ñëw nañ fi waa Union européenne di def conférence pour promouvoir non non ñu yónnee Sénégal nañ ñu yónnee koo xam ne délégation bi du am lesbienne du am góor jigéen différencier différencier wul kenn liggéey daal liggéey la nit ku nekk la mu doon kooku c'est sa vie privée donc di leen di jox man moom fi leen di remercier wala ko def public rek ma nga ko waaw kay temps jeex dama leen jërëjëf yéen <laughs> ñu ànd ak <laughs> partenaires yi dellusiwaat alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jóob ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jëlee fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yii ñu leen di bëgg a limal ndoxum siti amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbb ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te efficace te amul benn effet secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace boo amee woon asthme bay piqué crise def ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay ferme li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca ca Angleterre Allemagne ñoo wal fajri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. di remercier bu baax a baax remercier waa régie ak sunuy partenaire dore ko ci KP kalpe bi ñu moomal sunu bopp kalpe bi nga xamante ni Sénégalo Sénégal moom la ñuy jox bopp ñu jàll ci li nga xamante ni rek euh, moo di euh, boutique solution jàkkaarloog wal fajri kenn dootu ko présenté ñëwal rek wax sa jàngoro ñoom ñu fajal la ko sénégalais yee ko wax du samay wax ay ca ñu nuyu ko moom Mbaye Daane Souka Mbaye maa ngi lay nuyu ah Souka Mbaye Samba merci boo Mbaye Daane gi din naa ko euh, nee na ma dindi daane gi def ci Samba papa ak moom Samba Boubacar. waaw ko waaw d'accord jaay naa sama sant. Mhm. nuyu mbokku téléspectateur <laughs> nuyu mbokku téléspectateur yi nga xam ne rek ni nga saxalu si seen bu ci wax leen sa bula boobu. nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne rek dañuy saxaw di seetaan télévision mag bi lee mu di Walfadjri leeru jamono la voix des sans voix deuxième numéro de la semaine seen émission mag bi lee mu di Taku Show ci solution TV ci studio El Hadji mbokk téléspectateurs yëpp di leen wax namoon naa leen nam naa bu ngeen demati dama takk sa dama leen di gelu ku ci mel ni saa njoogu dama koy gelu ba damay feebar kon donc saa su may demati dama takkal sër wala nga dagg dara sa yére takkal ma ko ci sama loxo ndax dama lay gelu li ngay yëpp bu bu dee saa yi dem ma dagg sama yére. léegi tey ma raf la. ñu bàyyi na daw liggéey. boobu ah, naa ko. pour na yàlla ay démb maa oh. ngi lay nuyu Adja. ci kanam ñëw ci nepaat bu am solo nag tey dañoo am maître Ablaye Wade. Mm. moo di maître ci kanam tuuti lay doon ñu jëli victime di nekk. Saïbou Adja. Adja tey wax maa ngi doon junj léegi li ñu indi benn euh, xale bu góor la boo xam ni bokkoon na ci ñi solte ni doon dawal pick-up benn ci pick-up yi nga xam ni gisoon nañ ko ci mars bi passé te ndaw si ni teg ca kaw ñu koy mbéj ko dóor ba kanam nga mel ni ab balub teng si maanaam funki léegi nag xale bu góor boobu dañoo wax ni mi ngi tudd Njawar Jóob ñu ni petit frère bu Ramatulaay Diop xaw ma nag kat mooy Ramatulaay di waaye def nañ daal di piccoo Diop ñu ne ma nga dëkk ca Njaay de doomu kër kër imaam euh, sidibe loolu xëy na ab dëkk la boo xam ne dëkk yi fële léegi nag dafa am benn euh, takk der bu bule benn femme maanaam daal pes ko ñu weq ko yanu dugal ci ab pick-up ñu dóor ko ba kanam nga neewi ñu affiché benn xale bu góor boo xam ni euh, xam naa dama fàtte jox moodu li nga xam ne mooy photo bi mais mooy xale bu góor bii xam naa moo dina ko mën a euh, wane yaa ngi koy gis xale bu góor bi lañ euh, partagé photom ci réseaux sociaux yi gis naa ñu bari nag ay activistes yoo xam ni euh, taf nañ ko di ko saaga ak di envoyé message seen famille ak seen waa kër di leen saaga leer na léegi ah c'est bien waaw léegi xale bu góor bi lañ wax ni moom moo doon yëq femme bi moo ko doon dóor ginnaaw lii nag alaaji moodu femme bi baayam bi mu xëyee waa baayam bi mu xëyee ñëw na fii pour di wane ni ki ñu waxoon ni moo doon dóor du doomam doomam moo doon dawal oto bi après dañuy dem déglu pàppaam di ngeen gis photo bi nekk euh, ci seen euh, càmmeñ ñu def ci lu verte ab joxoñ kooku mooy doomam moo doon dawal pick-up bi euh, fi ñu def croix bi mooy policier bi doon dóor ndaw si kooku moo ko jàpp jiwoon indi ko mais doomam bi ndaw si ñëwee ku xool vidéo bi ko mënuñoo teg vidéo bi ku xool vidéo bi di nga gis après waa ji di génn ci oto bi wiiri ñëw ci pick-up bi taxaw croisé ay loxoom nii wala comprendre li ma yéen comprendre ngeen voilà kon ñu dem déglu bàyyi eh, police bi ñu tuumaal ni moo dóor xale bu jigéen bi après ñu daal di dellu siwaat insha allah ñu leen bu baax maa ngi leen di fay di leen gërëm sama waaj sama waaj waaj nag li tax tey ma ñëw fii parce que li ñuy wax victime di net moo nu dal parce que manifestation yi am dañu wane benn policier ñu ni moo dóor moo wéqe ba ñu def ko si réseau yi di ko saaga di saaga famille am ak yëpp loolu laa doon bëgg wax nag ni loolu bu amee ngeen xool image bi bu baax parce que ki jëli ndaw si wéq ko dóor ko ponkaayam ni mu day bu ngeen ko gisee daa ngeen xam ni ak ak ki ñuy wax moo moo wéq du moom ki ñuy wax moo dóoree kooku moom chauffeur la naka la chauffeur di wàccee bàyyee otoom dem di jëli ay manifestant ah xanaa kon du jaar ci gannaawam taal otoom moom dafa dafa taxaw ci oto yi bu ngeen xoolee de image bi daa ngeen gis kenn ku ñëw croiser les bras di xaar ñu dugal ndaw si pour mën ko yóbbu moom loolu lool mooy liggéeyam kooku ki nga xam ne nag moo wane gannaaw ku tuuti kooku ku ndaw ki kooku mooy kooku moo tudd njawar kooku lu ñuy wax ni moo wéqi moo dóor xooleen moom ni mu day ngeen xool image bi kiy wéqi ñoom ñaar ngeen xam ne am na différence ki nga xam ni nag moo dugal kii xëy na xëy na am na lu mu jàppal njawar mu am occasion mu gis ko ci image bi mu joxe turam joxe turu famille am joxe fu ñu dëkk te loolu loolu danger bu rëy la fu nu ah danger bu rëy bi moo di mën na mën mën nañu lor dañuy lor ba pare ñuy soog a wax ni eh ne nekkete du moom fekk yéex na c'est trop moo tax nag moo bëgg wax ni ñii duñu saaga ñii duñu xool nañu xoolaat image yi bu baax nañu dellu siwaat waaw nu jégg nu jéggalu nit ñi parce que tooñ nañu fu fu tooñ mën am parce que njawar boo ko xoolee moom xamul sax lu xew mi ngi ñëw Njawar la ñuy wax ne moom moo dóor xale bu jigéen bi loolu la ñu publier ci réseaux sociaux yi. waaw moom la ñu publier ci réseaux sociaux yi te mooy chauffeur mooy mooy ku tuuti kooku ñëw ci gannaaw oto bi daal di daal di croiser bras yi daal di taxaw di xaar nu dugal ndaw si pour mu taal otom yóbbu ñun li nu bëgg rek moo di ñi ñi ñuy wër di ñu saaga ñu ñu xool. da ngeen di jot ay menaces kon su ma la déggee bu baax a baax. waaw dañu jot ay menaces tout récemment rek ci suba rek am na keneen ku dugal saaga nu dagg fu saaga yi gën ñaaw def na menacé nekk fa il faut que nu rey policier bi nangam ak nangam moom tam sa moom deful jegewul yokkul moom bi affaire yi génn yëgu ko sax bi mu ko yëgee daf ni waay kii man la mais man man sama yoon nekku ci defuma dara yëgul woon sax ni lii am na dóor bi weqe bi moom fekkewu ko sax parce que kii door weqe feneen la ko weqe soo ko koy indi si oto bi nan ngeen yëgee ne vidéo wala photo Ndiawar euh, mi ngi ci réseaux sociaux ñu daal danu yeewu suba rek sunu benn suñu benn suñu benn jarbaat bu nekk euh, Italie moo ni moo suba teel ay boori six heures du matin sept la woote di wax ni waaw man li may yëg li njaw li may wax ni noo njawar moo ko def ñun leen njawar lu muy def njawar ma nga kamba waa ah, ñu ni moo dóori mooy weqi ñu ne ko ah dóori weqi ci kan ah mu ne xaaral ma seet leen dugal leen internet daa ngeen ko gis ñun noonu leen koy yëgee waaw kii nag kaka def xam nañu miin nanu xam bu fekkee nag dan ko defal dañ ko dañ mos defal dara àq walla wala moom ak njawar ñu jàppante mu gis photo bi rek mu bëgg fayu si njawar moo tax mu dugal lii ñoo ngi koy ñaan ak ñi ñuy wër di saaga nu xoolaat comparaison bi chauffeur bi ku tuuti ki ak ki wéqe ngeen gis ñoom ñaar seen force seen doole tolloowuñu ñun loolu rek la ñu bëgg ñu xam ne nu bàyyi nu loolu loolu la ñuy ñaan dóorul jegewul moom chauffeur la si otom lay toog ku ñu koy wax yóbbul mu yóbbu ku ñu ko waxi gaareel mu gaareel loolu rek la ñuy ñaan. voilà mi ngi noonu euh, Omar kon lii la ñu indi gaa yi gis nañ ko flèche bu verte bi fi mu joxoñ kooku mooy doomu góor gi doon wax moom mooy dawal oto bi même bu dee da nga dem ci vidéo bi sax bi ñuy indee ndaw si moom moo wiiri woon noonu ñëw croiser les bras euh, taxaw ci ginnaaw. léegi nag njort na ni moom dafa am ku am ak problème ak Njawar Diop doomam wala ku am ak problème ak ñoom famille bi def ko xam nga yow tey. amoo photo njawar ndax xamoo ko man xaw ma ko saa xamu ko keneen xamu ko léegi kan moo jékk jékki rek génne photo njawar ak ni mu solee te tenue bañ xam ko mu ni kii mooy imaam joxe turu dëkk beeg turu magam ramatulaay jóob ak lépp maanaam kon ku ko xam lay war a doon waaw. naan gelu golo gàtt na waaye foo ko foo ci laal borom yëg ko loolu dëgg la moom moo dal euh, waajur wi ak euh, doomam njawar hmm. benn di naxarlu vidéo bi mhm. ak ni ñu exposé Njawar ba ñu ci jot ay menaces ak yooyu te ñoom ñi ay mag loolu moom lu ñuy naxarlu la comme démb ni ñu ko defee ci mbër bi mhm. mais takk der yi war ci jàng leen mooy léegi bun fexe fexee ba journaliste yi du leen filme mhm. ñi gën a gudd loxo journaliste yi ñi ngi ci kaw di leen filmer dëgg la looloo indi lii mun na bañ a doon Njawar mais li am moom am na mooy gis nañ jigéen ju ñu jàpp di ko fitnaal tey jii waajuru njawar moo jug mais ñi ñi fitnaal tam dañoo am waajur di nga yàlla ni muy attee ay mbir vidéo bii du sax hasard pour man takk der dañ ci war a jàng ni di nga ñoom bu dee dara metti na leen ci tuuma kase la rawatina protéger seen famille tuuma kase la ak ay manaas dóoruñu njawar xaañuñu ko mm. ñoom ñi ñuy dóor di leen saaga ak di leen xaañ ak di leen tëj ci kaso bi mais ñooñu tamit ni leen amee ay waajur. waaw kon tey jii mii njawar di beneen takk der bu mu mënti doon lii war na ko jàngal ëllëg mooy bu timee joomu jàmbur mu yërëm ko. parce que xam ni bu tëjee doomu jàmbur mu dóor ko walla mu xaañ ko. kooku tamit waajuram tey nii la ko yëgee ci mettit loolu tax vidéo bi. am solo ginnaaw ba naxarloo njawar mi ñu utiliser gépp mm-hmm. mais par man vidéo la bu war a ibbi bopp takk der yi. xamal leen ni nin amee ay waajur noonu la booy yi ñuy dajal ci terrain bi amee ay waajur te li naan ay du yam ci bopp borom tey jii bu deen ni dañ na la ordu la bu buñ jot buñ war a exécuter seen i kilifa ñoo leen ko sant ñoom policier wala gendarmerie mais ña leen ko sant kenn menacewul seen njaboot ñu ngi lay sant loo xam ne loolu tax des fois li lay sant def ko mais na fekk rek mu doon lu jaadu mais lépp loo xam ne excès de zèle la wala bavure boo koy def nga bañ ëppal bañ ci egg fenn fii ba muy jur yu mel nii. Mhm. pour man jàngat la bu rëy rëy rëy rëy rëy ku mënti doon teg ci àdduna bi dafa yamatul ci ñun rek tey maa ngi gis sànq moom laa doon noté mooy haut commissariat des nations uni pour les droits humains waa nations unies dem ba di naqarlu ñetti nit yi faatu ak ñi ñu gaañ ak ñi ñu dóor ñu ne ñi ko def benn nan ko bàyyi mais dinañ enquête topp leen dem ba nations unies dugg ci lu mel ni mooy wane ni takk der bu ci laal ëllëg mun na am lu mu gàllankoor ci sa carrière kon bu leen ko kenn jaral. aywa mun nañ def seen liggéey nag. macha allah teg ko ci yoon. am na euh, sa ñaata moo des ayca ñu daal di kii kon su ka yow seetaan nga élément bi léegi kon comprendre nga yow ma doon laaj nan ma nu mu demee. foofu war bu fa dugg. mu ne laaj ma leneen rek bul dugg ci ba xam comprendre naa bu mu comprendre ma. namul ngeen ma. waa léegi kon du ma la koy laaj wax ma ko ba laaj. déedéet wax ma ko yaa dàq ba ma ruube. waa léegi yow seetaan nga vidéo bi. waaw ah. ayca loo ci jàngat. lu ma ci jàngat. waaw euh, xanaa. Mm. Euh, son yi bu euh, comme ni ki nga xam ne rek moom moo ji ama wax. gis nga des fois nit day nit da ngay nekk ci dara di ci liggéey am koo xam ne mu ci sa ginnaaw nekk sa noonu. Mm. bëgg ñu yàqal la wala bëgg loo xam ne dañ koy def loo xam ne day metti ci sa famille. xam nga tey njawar gisul xamul yéegul tinul ndax police boo xam ne dafa ñëw taxaw. Mm-hmm. chauffeur la. loolu la papaam wax. nee na chauffeur la dafay dawal dañ naan ko demal fii mu dem fii mu ñëw ñu ko ñu yóbbu kii mhm. donc bi ñu indi xale bi xale bi dóor nañ ko avant moo ñëw ci njawar mhm. kon donc ki jël photo njawar taf ko daal ni kii la bañ koy saagandee di ko kii kooku mooy noonu njawar mhm. kooku du koo xam ne nit ko du nit koo xam ne war nañ ko boole ci nit ku baax parce que nit koo xam ne yoonam nekku ci ci oto rek la nekk wàccul deful wàccul lu après la wàcc ñu xool ñëw nga jël photom daal kii la kii moo def lii kii moo def lii te fekk deful loolu mm. kon kooku du nit koo xam ni man dama koy boole ci koo xam ne ku bëgg njawar la di di kii tamit papa ji ndax euh, papa ju papa papa bu am kii ci njaboot la le fait que ñu wax doomam rek mu jugee xam nga njawar yëgul mm-hmm. ndax bi nee na mi njawar a ngi ci camp ba mm-hmm. moom mu jugee ci dëkk ba xool dëkk bi nu mu soree mu ñëw di wax ni pap doomam du kii kii moo def lii kon donc comme ni ko Omar waxee ni na ci seen biir dañuy xool kan mooy def ak kan ma dul def parce que njaboot ki nu ki mbécc euh, xale bu jigéen bi métti na ci kër xale bu jigéen bi te kenn xamul kan moo ko mbécc te ñu ngi ni taxé koo xam ne méjul xamul voilà yoonam nekku ci Adja mhm. noo seet a gisee vidéo bi euh, démb laay bërki euh, keroog daal laa gis vidéo bi mais mais booy xool sax xale bu jigéen bi ki ko jëli moo ko weq mm-hmm. moo ko mbéj mm-hmm. biñ ñëwee ba ci pick bi ñoom gants yi lañ summi mais man pick bi gisuma fu ko fa dooree mm-hmm. donc muy loo xamante ni aussi nit ñi vidéo bi lii dafa similaire rek liñ doon traité demb bala ñuy posté ay nit nañu xool dégâts yi nu mën a def nañu xool préjudice bi nu mën a causé nit ñi donc nañ bàyyi li ñuy def moo gën te lii nii bi vidéo bi daw maa ngi ko wax nee naa ku ko xam rek moo ko jox parce que joxe sa turu yaay joxe sa turu papa joxe sa dëkk joxe sa joxe sa en détail près sa famille. Hmm. non ku la xam rek moo la ko mën a def voilà nañ xoolaat baax li ñuy def soxor jaru ko. macha allah alaaji euh, police bi de way juróom moo ñëw ba fii pour di seetal deru doomam ni da dawal te kuy dawal mënta dem jàppi di weq ka dóor. Hmm. waa xam nga way jur moom loolu mooy wane rek coono gi nga xam ne am na ko ci doomam. Hmm. vraiment tey moom bi mu ñëwee ci sànq ni euh, nekk na ci njàqare. waaw ci li nga xamante ne bi euh, menaces yi bari na. Mm-hmm. léegi nag mu am leneen loo xamante ne bi mi ngi ci. maanaam expliqué ngeen nekk ki ko def xam na. xam mm-hmm. nga kooku sax xam na njawar xam na kii xam na loolu. sërëm ak yëpp. waaw xam nga tamit nee nañ ca oto boobu njawar a nga ko woon. Mm-hmm. du dëgg. chauffeur la woon donc moom euh, pape bi mu ñëwee leeral na yëf yi li nga xam ni noonu la demee. mais nag dafa am leneen lu ci dangereux loo xam ne mi ngi ci. xam nga policiers yi pareen saa yi euh, dañuy ci ay vidéo mhm. la ñuy après jàppee ji ay booy. ci ay vidéo waaw. waaw xam nga tey jii dañuy maanaam booy yi léegi dañuy bañ ku leen filmer mhm. parce que dañuy wax ne bu ñu paree ci manifestation bi. am na ci ah. ñoo xam ni. dañ leen di xool jàppi leen léegi ñii tamit après manifestation la booy yi di commencer. di jël ay nit naan diwa ngi diwa ngi mm-hmm. léegi bu mbir yi demee noonu léegi policier bi nga xamante ne bi mi ngi ci terrain bi li war rek mooy mu jéem a def liggéeyam tayam ci mm-hmm. parce que am na loo xam ne bu ko dépassé est-ce que moom it bu ñibbee këram lu mel nii du am parce que yii ñuy def ni lu lu garaaw la mm-hmm. comprendre nga que mën ngeen parce que kii fi mu toll nii seen famille ñi ngi ci insécurité dëgg la ce que police ba danañ leen yoral seen sécurité ci jamono ji. waaw dëgg la. partagé nañ tey jii am na koo xam ne peut-être dina seetaan ne ah ndekete du dëgg mais am na koo xam ne vidéo bële lay seetaan. moom lay gis ak photo ba. danaan bu kenn leeral. ba noppi ñu wax ne mi ngi dëkk lieu sàngam ak lieu sàngam. wallaay joxe turu sëram joxe turu sëram ak joxe leneen. comprendre nga xam nga loolu vraiment mbir la moo xamante ni moo tax euh, ñuy wax ne fii ñun ñëpp dëkk xamante nañ. Mhm. donc lépp lu ñuy liggéey. ñu wax ba joxe waalo sax. waaw euh, sirnoowu sërëm boobu mooy piccoo. waaw dégg nga nee na ramatulaay jëpp baay piccoo ñu ñu gën koo xam ci piccoo. kooku ñoo ki ki def li xam nañ ko ki def lii da koo xam bu baax a baax baax. waaw léegi nag yu mel nii ay mbir la yoo xamante ni mbir yu garaaw la. donc moo tax daal sooy li ma la mën a wax mooy. Euh, boo nekkee ci liggéey. liggéey xam nga jàpp nga jigéen. yóbbul. mais dóor. kii yow vraiment vraiment. comprendre nga. xam nga fi mu doon nii ka doon dóor moom kenn xamut kan la. waaw waaw du ko joxe. yaa ngi dégg waaw. waaw ka doon dóor moom kenn xamut kan la. te seen masque yee tax duñu xam kan la. waaw dañuy masque wu. waaw xam xam nga ci mbir masque mbir yi wuur am na yeneen yoo xam ni mën na ci ne. Ah, waaw waaw mën nga masque. mën nga masque te lu mel ni la doon Oh, ki ne moo ko toj na waxuma ka ko ne moo ko toj ah. mais après weddi gi am na ci lu ne part danoo partagé woon benn photo oh, benn photo mais après man mais lii man mën naa doon fii ab takkub der hmm. fekk maa nga tëdd di nelaw benn waaye sukaa mi contre ma nga envoyé sama photo daan na ngi nii mii def mu ngi dëkk tel bérëb tel bérëb tel kii ak kii moom moo def lii même même ñu ngi koy def sax jëkkëru kii euh, ndaw si candidate la. Euh, ba Anta Babacar ñu ngi partage jëkkëram naan moom ak euh, Moussa Fall ñoo joxe ordre pour gars yi di tiire ñu ne xam nga jëkkëram homme de tenue la. ñu ngi joxe jëkkëram ci réseau yi. colonel waaw waaw colonel loolu itamit ñu ngi partage photo c'est-à-dire situation bu tollee fii moom kenn muccul ku nekk mën nañu partage sa photo mhm. daal ni moo def lii mhm. kenn muccul. man daal li may ñaan takk der yi mooy ñu humaniser seen diggante. ak ni Sénégalais yi daal ñu juboo war daal ñu xol rek comme confiance amante ni bi moom parce bu demee ba ñun ak ñoom ñu def nii rek. baaxul baaxul mhm. baaxul moom. c'est bon jeex na macha allah. mi ngi noonu kon lii la ñu indi woon ba suba ñu ñëwaat ci duggaat ci internet bi xoolaat keneen ku ñu indi. <laughs> waaw d'accord amati na solo en tout cas nañuy xoolaat bu baax li ñuy def rek am na ci solo. ñu dem jëli nepar musical suka kuy sa gan mosuma gis ne dama aw boo xam ci kaw laa bëggoon ah non non non suka nag. huit minutes daa <laughs> Maître El Hadji Diouf nañ leen la Diouf ñoo ko bàyyi. waaw ñu lay fay di nuyu Sénégal. xam man genre réew la. suñu réew eh, la moo xam ne réew mu doy aar. may naa leen di sant di gërëm di gërëm ñoo fekk ci plateau bi di rafet bu baax moo xam ne teew naa ko jërëjëf. ana Cheikh Fall mbaa mi ngi ci jàmm. mi ngi ci jàmm. ñu ngi koy nuy Cheikh de moom mooy. bu doon ma benn préparé ay doublon rek dama indi doublon yëpp moo koy indi. Eh, ah doublon yi kon Cheikh Fall indi doublon yi di war di signal di ku ko signal signal keneen ay doublon rek li ma la lépp ma ko teg moom Cheikh Fall waaw maître El Hadj Diouf liggéey bi rafet waaw maître El noo gisee nag amnistie bi nar def ki nga xam ni rek oh moo di Ousmane Sonko loolu dama ci kontaan vraiment bu buggee nee ma xaru bu buggee nee ma tëb étage naan pétrole <laughs> Ousmane Sonko Macky Sall liñ def nii procès bu ne ma nekk faak moom jaare ma ci procès procès Mame Mbaye Niang waaw procès bu mu dugg man ma ne ca waaw di xeex Macky Sall bëgg xëy bis waaye lii yaakaar ngeen Macky Sall mii moom lii yëf nit la ah mais ah, yow ah, jàmm non jàmm réew mi loolu ma ne jàmm réew mi Ousmane réew mi ban ban ay gisoo ay wi ah, kon gisoo manifestation yi bi am ma ne manifestation léegi nag jàmm jooju nag duñ génn ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ma ne léegi nag ànduma ci di nga ci ànd xoolal li yaay def bul ma sacrifier. li tax nga naan bu mu la yow loolu def dafa bëgg a sacrifier nu mu la sacrifier. parce que tey. waaw li ma liggéey yëpp ba Ousmane dugg kaso mu bëgg a xëy xëy raas ko foo koy waxee. dara da ñëw yow ñëpp xam nañ la ci comédie. Ousmane. ok ñëpp xam nañ ma. ñëpp xam nañ ma ci la ci comédie. ku ne problème la yow léegi yow ña yow léegi yow sax léegi am nga beneen turandoo de. avocat. dama koy le plus fou des fous. le plus fou jàkkaarloo. Ah. na kàndaay bi dof la waaj na ko lan mun a maa leen gën a dof ñun ñëpp. waaw ah, mais dañuy dof dof lu laa eh. maa leen gën a dof. ah loolu kay loolu wax la. bu dee bu dee Macky Sall dafa bëgg a toroxal. waaw moom kon dafa mel ni woon yoon dafa mel bu dee yoon la doon défendre. kon président Macky toroxalul la. toroxalul kon yoon lañ nga doon défendre tegoo ko. yow aji saa ne da bokk boo waxal lu la neex. yow maître maanaam yow bu réew mi normalé. kenn waratu laa invité balay may ngay wax. merci yow ñëpp xam na ni procès roubé képp lañ lay jox ñëpp xam nañ ko eh. ndax bu fekkoon ni réew mu normal lañ nekk munoo nekk ci candidat munoo nekk candidat yow ah. nga nekk ci nga wut ay a nekk candidat diglu ma rek diglu ma waaw diglu ma rek ah, ah, dama ne fii la ñu ñëw mm-hmm. ñu ni candidat la de mu wut ay parrainage bu ay doublon la ñu ni déetewaay keroog procès euh, appel Ousmane Sonko bi Mame Mbaye Niang la kat mu dem taxaw rob sol rob afga en tant que euh, candidat xamugoo ndax nañ la jàll wala doñ la jàll mu dem taxaw buntu assemblée buntu président kii yow yaw yow yow yow yow yow maanaam yow amoo yaakaar sax ci sa jëmm yow yow maître yow amoo yaakaar ci sa jëmm yow bis bu réew mi normale na la leer ni la di nga dellu xaw ma fan nga dëkk xooli sa suufu maam yooyu bu dee man ngaa bàyyi nga dem bàyyi réew mi normalul yow bâtonnier génne ko ci làng yow bâtonnier yow da ngaa fàtte ba di la bâtonnier defoon ah moom maam Saalum la am ñu nekk frontière Fuuta <laughs> sa frontière maam teel maar. yéen ay mbiru comédien am nga a wóoloo. trop. man boo problème damay def ba damay def ba bëgg a dëkk. waaw. Saalum la maam dëkk. très bien am palanteer bu tuuti. maam nekk palanteer bu tuuti. merci waaw. palanteer ba comme est imposte. palanteer baabam. Saalum di mu tàngee. Saalum di mu tàngee. maam am. protéger impos. comme maisonnette xale yi nii. Ah. Ah. mu lay bëgg a rey. merci ah. yow daal mooy rek yow sa maam nan la mënee am ca Saalum. cinq cent mètres carrés. yow li ñu la yow droit nga ñëw sama maam kii droit lañ ko laaj. Eh, eh, eh, yow lii moo tax lii moo tax lii moo tax néeg bu doon néeg bu doon studio bi. ak volontaire tuuti. yow yow sa volontaire maam. maître Clédor xoolal maître maître Ciré Clédor kenn mësul gis ci débat. ñu wax ko lu ko naqari ba mu génn ba mu def hors sujet yow nag nii ngay def yow maanaam débat mbii nag yow maître yow yaa eh, dañ koo laaj noo gisee amnistie na amnistie bi dañ laa laaj ci amnistie bi amnistie bi dañ ko laaj amnistie bi yow dañ laa laaj ci amnistie na waaw ñëw ci amnistie bi nee na nee na mu def erreur nag sa frontière maam estati ko <laughs> xam nga fi doon maître waxul saa ñëw koy wax. <laughs> ñu leen di jaajëfal bu baax a baax jaajëfal ñi doon seetaan ak internet yeeg téléspectateur yeeg ñëpp ah internet yi suñu xarit yi. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen remercier maa ngi xaar ba nga fay làmp bi bu fekkee da ngaa jànnaxe <laughs> ñu ngi ñu waa régie El Hadj Modou Diouf ab féete Abdou Top Ablaye Diallo Fallou ak képp koo xamante ni yaa ci biir kër gi ñu ngi leen di remercier bu baax jox leen daje jeudi incha allah ci kàttanu yàlla suba su kàmbaay wutuma ci toog bi ñu def noonu ba suba incha allah rabbi. KPI moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show.